away life. messieurs bonjour merci d'être avec nous mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média dellu siwaat ak yéen ci euh, yeewu leen bi première matinale fii ci euh, Sénégal gërëm équipe yi fi nekkoon fan yi yëpp Dieynaba Seydou Batal Bijou Si ñoom ñoo leen doon gunge ak équipe yi suba gi tey nag ma dellu siwaat defati ni ñu ko daan defee ci télévision Futur Média alors exactement 8 h mooy doogo jot bis bi tey na ak mardi février 2019 euh, on a préparé beaucoup de sujets pour vous euh, comme ni ñu koy defee tous les matins bëri na itam ci ay euh, enveloppe yoo xamante ni tey du ñu leen defal teranga Sénégal mais dañuy séddale rek ku nekk lii sa wërsëg donc j'ai beaucoup d'enveloppes yoo xamante ni fii ci plateau bi dinañ leen ko baaxee bu ca kanamee donc on vous laisse le soin ngeen préparer ko avant ñu leen di afficher le numéro de téléphone yi ci suufu écran bi alors comme chaque mardi dinañu waxtaane wala jumtukaayu xarala yu bees yi yeewu tik ak Merry Beye Diouf elle sera avec nous euh, tout à l'heure dinañu waxtaane aada ak cosaan ak Aïssatou Pay Fall Mados sera avec nous ci wàllu bien-être euh, dex ak sunu musique Bijou si euh, parlera de cette journée bi nga xamee ni moom la ñu jagleel lépp loo xamee ni jëm na ci xeexuk jàngoro bi ñu tuddee cancer c'est vrai que ab woppaloo soo xamee ni ñi mu sonal bëri na amul góor amul jigéen amul xale amul ndaw alors cancer du sein Euh, liñ ci wax bëri na waaye am na yeneen i xeetu cancer yoo xamante ni euh, mu ngi euh, sonal surtout góor ñi on en parle tout à l'heure puisque tey mooy bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel xeexuk jàngoro boobule di cancer dinañu am itam ay gan yoo xamante ni à tout de rôle dinañu ñëw pour waxtaan ak ñun ci seeni programme en gros c'est ce qui vous attend tey ci yeewu leenu mardi bi li ñuy tàmbalee mooy première partie bi di téléservice bi njëkkee ko ak xibaaru jaww ji topp leen moom va regarder d'abord température yi euh, ci euh, dëkk yi xool dëkk bu ne ñaata la yeewoo euh, ci wàllu température c'est vrai que depuis un moment quand même thermomètre baa ngi affiché ay température yoo xamante ni sañ na noo wax ni seddaay bi daanaka wàññeeku na wala sax mu ngi bëgg a jeex e que ñu ngi bëgg a dugg tàngoor donc donte ñu ngi février par exemple dëkk bu ne ak li mu xëyee tey vingt six degré daanaka ak vingt cinq ci yooyee le météo xamal ni moom la ñu am tey ci dëkk dëkk yu bëri surtout par exemple biir Sénégal fu mel ni euh, Kaolack yeewu tey ak température yu toll ci euh, vingt six degré Linguère yeewu tey ak vingt six degré Dakar ak Saint-Louis ñoom jege nañu géej gi euh, yeewu entre vingt deux ak vingt trois degré mooy minimum bu Saint-Louis Dakar vingt deux degré tey ci suba gi Podor vingt trois degré Matam vingt deux degré Tambacounda vingt trois Kédougou vingt degré Kolda dix neuf degré Ziguinchor yeewu tey ak température yu toll ci degré bu demee nag euh, ba ca kanam fekk jant bi gën a jóg euh, ci la ñuy commencé sentir ay pic de chaleur nga xam ni euh, loole mooy wane ni thermomètre bi tey mën naa yéeg ba 38 jàpp 39 ba 40 degré boori Ziguinchor ak fi nga xamante ni moo di Kolda Tambacounda ba Kédougou même Matam tey maximum am météo mu ngi ñu xamal ni mu ngi toll ci 39 degré Linguère nopp ak fi nga xamee ni moo di Diourbel ba Saint-Louis tey maximum am dina toll ci 39 degré 38 degré Podor 38 Kaolack Dakar. Dakar moom mën naa yendu tey ak température yu toll wala yu nar a toll ci vingt neuf degré bu weesoo thermomètre bi mën nañu jàll euh, ci euh, géej gi euh, xool d'abord yëngu-yëngu ak tekk-tekkaaralam muy marée haute ak marée basse alors waxtu marée yaa ngi nii par exemple marée haute bu njëkk bi météo nee na dina ko seetlu bu dix heures quarante du matin jotee marée haute bi ci top daa ñu ko seetlu tey ci guddi gi exactement bu vingt trois heures cinquante sept jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi. météo nga ko seetlu euh, bi 4h32 du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am tey ci ngoon gi exactement bu 16h28 jotee waxtu yi nga xamante ni moo gën baax wala moo nar a gën a baax euh, pour suñu mbokk euh, nappkat yi waxtu yu njëkk yi ci fajar gi la woon 3h du matin jàpp 5h06 du matin lu ko mooy ngoon gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi 15h30 diggante 15 h jàpp 17h30 et puis bu ngeen dee dem géej bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage ndaxte dee ko balaa ngaa lakkale c'est vrai que li ñuy dégg ci ay mool yu faatu wala yu dem ba géej ci réer bëri na loolee nag li ko waral mooy souvent euh, du ñu faral di euh, saytu wala di laajte ay information par rapport ak jaww ji euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk météo donc baax na boo dee dem géej non seulement nga sol sa gilet de sauvetage mais en même temps nga wut ay xibaar yoo xamante ni mën na nga cee sukkandiku par rapport ak temps bi ngelaw li ak météo bi donc loolu bëgg benn yoon xëy na tey bi 7h39 jotee dina tëddi guddi gi exactement bu 19h06 jotee ñeel waa service national météo Bamar Diagne ci jàppandalam fajar gi euh, moom moo ñuy baaxee euh, xibaaru euh, jaww ji ci télévision Futur Média ci yeewu leen bi première partie bi la nga xamee moom la ñu tuddee télé service leneen liñ ciy toftal mooy qualité air bi nga xamante ni moom la ñuy nooyi fii ci Dakar capitale bu Sénégal ñu jëlee ko ministère de l'environnement alors tey amul qualité bu baax ngelaw xamante ni moom la ñuy noyyi euh, ci euh, Dakar puisque dafa rouge et que xam ngeen ni rouge danger la dégg ngeen sax taasukat bi wax ko euh, rouge danger tubaab bi ko sàkk da koo ragal rouge danger la donc puisque rouge danger la tey ministère de l'environnement mu ngi ñuy xamal ni ngelaw li ñuy noyyi fii ci Dakar baaxul du tout donc faites très attention et d'habitude consigne bi mooy bu dee da ngeen yore ay xale yoo xamante ni dañoo asthmatique bu leen leen génnee bu dee a génn puisque ngelaw li euh, euh, baaxul du tout dafa ànd ak ay particules yoo xamante ni euh, mën na yokk jàngoro wala sax mu indi jàngoro et puis bu dee da ngeen di def sport d'habitude bu ngeen dee daw di footing xam nga boo dee nooyi da ngay nooyi ak sa gémmin donc loole mën na indi nga nooyi ba dugal ci sa biir yaram ay particules yoo xamante ni dafa rax ci ngelaw li et mën na indi ay gàllankoor ci wàllu wérgu yaram donc si vu ne pouvez pas su fekkee mën ngeen ko bañ def autant ne ministère de l'environnement nee na euh, li ko tàmbalee Géejawaay ak li ko wër Yoff euh, HLM Bel Air biir Dakar euh, indi su qualité air bi elle est très mauvaise pour tey et puis donc faites très orange itam mooy bu tay bi voilà donc en tout cas c'est entre entre entre rouge orange donc faites très attention voilà c'est vrai que fi mu ne sama xel mee dem euh, miinaguma mbir mi euh, mais bàyyi leen ci xel euh, amul qualité noonu ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi fii ci Dakar donc ci ay di ay information yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee ministère de l'environnement alors li ñuy toftal ci téléservice bi mooy waxtu julli yi ñu njëkkee ko ak julli julliti fajar gi jullee mu ngi toll ci 6h25 du matin tisbaar 13h22 la ñu koy julli takkusaan 16h40 timis 19h06 jotee vingt heures seize ci la ñu koy julli pour suñu mbokku chrétien ci seen i bërëbu jullikaay ñoom ay heure fixe la am cathédrale euh, meesam bu njëkk sept heures bi ci topp dix de l'Ouganda six ak église bu Saint-Joseph benn mees lay am tey ci ngoon gi lay doon bu euh, jotee fàttaliwaat leen ni bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa am leen habitude di yër suñu site internet bi di www.igfm.sn foofee bu ngeen fa duggee euh, di ngeen fa fekk lépp loo xamante ni mën na leen a soxal ci wàllu actualité xam actualité nationale euh, wala sax internationale donc page d'accueil euh, bu suñu site euh, internet baa ngi nii dip jéye ju bon jéye ju am ca dëkk bu ñu naan Ziguinchor alors foofee double meurtre à Ziguinchor un entrepreneur et son employé tués à bord de leur camion donc ñoom ñaan ñëpp la ñu faatandoo ci dëkk bu ñu naan Ziguinchor muy fait divers boo xamante ni moom la site bi xëy xëte tey ci page d'accueil ainsi de suite bu défilé ngeen cee fekk ay euh, ponk yoo xamante ni mën na leen a soxal euh, ci wàllu actualité nomination yu bees yu jógee ci euh, njiitu réew mi ak conseil des ministres bi ñu doon amal et puis voilà donc lii yëpp mooy li nga xamante ni xew na fi ci wàllu actualité beneen site internet bi di www.kingfm.sn mun ngeen xool li nga xamante ni moom la site rajo King FM xëy xëte tey ci wàllu culture Euh, ci wàllu sport ak people yi donc lépp la ñuy waxtaanee euh, surtout culturel bi euh, ci site internet bu rajo King FM 99.4 donc site bi di www.kingfm.sn yéen kay yeeg euh, seen i xët euh, on vous montre juste quelques journaux euh, laataa ñu koy xóotal ca kanam ci diggu bëccëg gi ak revue de presse bu rédaction bu télévision Futur Média l'Observateur mi xëy ak jàngoro ji le nga xamee ni ab épidémie la ñu tuddee ko coronavirus sa fera quelques semaines que adduna bi yëpp di ko waxtaanee dip jàngoro boo xamee ni mu nga jógee ca benn dëkk bu nekk ca Chine fi mu toll tembe nag dëkk yëpp ñu ngi jël seen i matuwaay pour que jàngoro bi bañ leen sonal donc coronavirus euh, impact le Sénégal puisque euh, laalul rek wàllu wér-gu-yaram mais dafa laal itam euh, li nga xamante ni moo jëm ci wàllu économie 35 pour cent des importations des importations du secteur informel menacé puisque bëri na ci ay mbir yoo xamante ni ci wàllu commerce la Chine lay jógee donc du coup am na lu mu indi ci wàllu sooxe ci économie donc ab dossier la boo xamante ni yéen a kaay bii di l'observateur moom la amal tey président la république waroon dem dëkk dëkk bu ñu naan Corée pour recevoir fa benn raaye ab daje boo xamante ni dañ ko jagleeloon lépp lu jëm ci wàllu euh, euh, jàmm euh, malheureusement mujjul dem et puis le ministre de la santé investit le port de Dakar aujourd'hui waa douane ñoom itam actuellement taxaw na nu ngir xool naka la nuy saytoo ba moytu virus boobu la ñu tuddee corona et puis voilà ainsi de suite ci surtout l'observateur bi les conclusions des investigations ainsi des investigations, investigations policières, les incroyables révélations de l'enquête sur le vrai faux rapt euh, de Koumbakan à lire euh, ci l'observateur bu euh, tey et puis enquête mi li mu tuddee traitement des rapports des corps de contrôle Macky face à ses démons ab gëstu la boo xamante ni mën ko fekk ci enquête bu tey bi ñu xool beneen yéenekaay ak li mu xëy xëtee tey ci Aliko Dangote qui est traqué paraît-il à Dakar ab dossier la jëm ci plainte contre l'homme le plus riche d'Afrique euh, pour faux et usage de faux association de malfaiteurs escroquerie escroquerie vol et cetera loolu libération moo ko xëy amel euh, di ko xamal euh, ci xëtam dip dossier boo xamee ni dafa tegu ci ndodduk kii ñu tuddee Dangote bokk na ci ñi ëpp alal fii ci Afrique beneen yéenekaay la ñuy xoolaat xëtam tey ci mardi bi le quotidien mi xëy ak lii mu tuddee gouvernement corps de contrôle mauvais rapport ay conséquences ay contestations Euh, qui jette donc le discrédit euh, sur l'OFNAC la Cour des comptes ak IGE euh, dossier bi ak nataaluk président de la République ci une bu le quotidien tey jii ci bis bi beneen yéenekaay las xëy ak président Macky Sall ak lii mu tuddee recommandation des rapports de la Cour des comptes Macky demande demande leurs applications voilà donc loolu ci yëfi enquête ak contrôle ci bis bi Vox Populi moom xëy na ak fait divers bi ñu tuddee euh, une fillette de quatre ans violée euh, à l'unité euh, vingt cinq dip ñaawteef boo xamante ni ma nga amee ci dëkk bu ñu naan Parcelles Assainies naka la demee mën ngeen ko liir tey ci biir yéenekaay bi di Vox Populi et puis on finit ak record premier quotidien sport fii ci Sénégal mi xëy ak ak salaire bi nga xamee ni moom la ñu ko proposé au mois de juin plus de dix milliards pour Koulibaly naka naka la mbir mi demee euh, ak euh, loolee ñu ko proposé ci xaalis euh, mën ngeen ko fekk tey ci record bu mardi bi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam en direct ci télévision Futur Média exactement 9h mooy doog a jot on va prendre une petite pause xool publicité yi laata publicité yi dinañ leen tegal woy bi ñu tànn tey bi ñu tànn nag ab woy la boo xamante ni ça reste dans la tête ki ko Dior qui a du talent elle est souvent venue nous voir euh, rappelez-vous euh, baatam bu neex bi ki en café avec euh, Dior qui a beaucoup de talent li mu mujjee génne maa la fan la ko tuddee c'est vrai que bokk na ci woy yi nga xamante ni boo ko dégloo benn yoon ça reste dans ta tête alors man nag euh, li ma ci jàpp mooy ay maa la fal ak maa dafa am daal euh, benn affaire boo xamante ni mu ngi ci woy bi on va écouter ça ñu may leen ko yeewee leen ko ci suba gi juste après on va se retrouver ko defee ñu gunge leen fii ba 10 45 ci yeewu leen bi première matinale fii ci Sénégal. ma ndékki bër aja mëne fu que c'est une chanson qui nous rappelle quand même beaucoup de souvenirs xaw ma tonton mag fan nga ko jëlee waaye leer na ma ni danga koo loxoti ci taatu waxande bi euh, parce que 1900 euh, 1989 la woon waaw 89 euh, ci dëkk bu ñu naan euh, Montreux ak Youssou Ndour ak Super Étoile c'était il y a très longtemps temps boobu sax Bercy existé gul puisque ci période yi la tàmbali nas Euh, di tëgg euh, fi nga xamante ni moo di euh, Bercy donc c'est une chanson boo xamante ni non seulement dafay daw yaram waaye boo ko dégloo rek sa xel dem ci démb mu ngi ci woy Bamako ak kamu taseloon ci gaal gi mu sàngoo ab sër saa yoo ko dégloo rek da ngay nostalgique wala sa yaram dafay daw à propos de Bamako Youssou Ndour ak Super Étoile ñu ngi jëm Bamako xam ngeen ni semaine prochaine dañ fa amal ab daje bu mag boo xamante ni ñoo ngi ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay muy salon de l'habitat salon de l'habitat boobu le nag dina tax jël Bamako soppi ko euh, Dakar donc retrouvailles lay doon entre euh, sénégalais d'ici puisque sénégalais yi nekk fii dañu fi jóge pour dem ak sénégalais yi nga xamante ni ñoo dëkk foofee ca euh, Mali Bamako donc ñu ngi ñëw yeewu leen sax dinañ ko fa def ci période boobu la nga xam ne ni dinañu fa amal salon de l'habitat et puis Youssou Ndour nar fa amal ab spectacle bu mag ci foofee nga xamante ni moo di Bamako donc ce sera un événement télévision Futur Média donc concert Bamako Euh, ce sera pour le 21 février donc le 21 euh, la ñu koy amal ca euh, stade Omnisport Modibo Keita retrouvaille lay nekk juste après daje boobee nga xam ne ni moom la ñuy amal ci wàllu dëkkuwaay on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure laata ñuy jeexal yeewu leen bi en attendant 9h14 mooy doog a jot dinañ leen proposer bu ca kanamee vu d'ailleurs mooy yenn ci ay reportages yoo xam ne ni dañu koy faral di gis ci ay télévisions étrangères ñu jagleel ko soit Sénégal wala ay doomu euh, sénégalais euh, tey ji dañ leen tegal ab reportage boo xamante ni suñu ay confrères euh, yu BBC ñoo ko def jagleel ko jigéen boo xamante ni jàmbaar la dafa amee doom bu amee laago mais boobu ba tey kombaawam mooy doomam taxaw mais en même temps jàppale yeneen jigéen ñi nga xamante ni ay yaay lañu mais malheureusement ñu am ay doom yu yu handicapé donc un reportage qui nous a tellement marqué qui a été qui a été donc réalisé par nos confrères de BBC dinañ leen ko tegal kaname muy suñu vue euh, d'ailleurs euh, tey itam di bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel jàngoro bi di euh, cancer bi aussi nu en parle c'est vrai que pour jigéen ñi am nañu ñu leen di xeexal ak cancer du sein mais góor ñi itam bëri na ay xeetu cancer yoo xamante ni daf leen di laal ah mu sonal leen canceru deret canceru testicule par exemple ni jigéen waree palper pour xool ndax am na comme déet noonu la góor di war di palper boppam pour éviter ay yenn jëye euh, bon on en parle tout à l'heure puisque euh, du ñu ay borom xam-xam mais on est là souvent pour sensibiliser euh, ci yeewu leen bi comme on dit souvent utile la ak agréable et puis mal lee <laughs> ngi fi Madeleine yaayu mama mal lee ngi toog mal lee ngi fi Madeleine yaayu mama soin de soi xam nga amul góor amul jigéen ku ne war naa toppatoo boppam surtout ci wàllu sañse alors léegi nag dañoo bëri quand même ay créateurs yu nekk ci continent bi je dis pas que Sénégal mais dëkk Euh, ci Afrique euh, dinañ leen euh, présenter Iman. Mm-hmm. moom c'est un styliste camerounais dinañ découvrir ay modèle am ce sera pour tout à l'heure oui ce sera pour tout à l'heure Baye Cheikh donc maa ngi lay nuyu Baye Fallou Bambak Dadi yow itam <laughs> donc maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokku téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee rek on va parler de Iman Ayessi eh! donc <laughs> Ayessi bu nekk benn styliste camerounais boo xamante ne il est rentré dans le cercle restreint de la haute couture parisienne africaine comme ni ko Bijou doon waxee donc moo ñu ko suggéré dinañ wane reportage bi nga xamante ne waa Africa News def nañ ci moom euh, pour fësal liggéeyam bu muy def surtout euh, pan africain yi muy valoriser di ko mettre en avant ci liggéeyam. voilà donc nañ ko découvrir bu ca kanamee ak euh, Malé. Malé Bigué dafa neex mais Malé Bigué dama ko namoon <laughs> Malé Bigué waaye Malé yaayu maman daa xati. Malé yaayu maman Malé ngi fi Malé Bigué maar Malé maman donc Malé Madeleine nous parlera donc de ce styliste camerounais. ne euh, ce sera pour tout à l'heure maa ngi doon wax léegi nit nañu waxtaane euh, bis bi tey nga xam ne moom la ñu jagleel xeexuk jàngoro bi le euh, mm. di cancer le temps que madame Niaparita di roof ay microbe ak di rocci <laughs> puisqu'elle est tellement compliquée elle commence à m'énerver alors que moi que su ma ñëwee du ma mais bon elle m'énerve encore dinañu waxtaane cancer bon nañu ko installé kon ba pare wala Abdourahmane noo ko bëggee ma bàyyi la nga installé ñu dugal seen ay ma xala ay rob yu compliqué war a brancher le micro bi souvent euh, day am ay problème parce que du xam fan la koy jaarale <laughs> voilà regardez Abdourahmane le grand technicien ingénieur de son euh, il est en train de euh, d'abattre liggéey bu metti puisque Coro robam metti na Bijou Ndiaye <laughs> robam metti na léegi Abdourahmane xamul fan lay jaarale micro yi Abdourahmane yàlla baax na bon chance man métier bi ngay def laa waroon def di nga xam ni kon dara safu ma yow sax am na lu la saf waaye man bu doon a sama liggéey <laughs> sama loxo fu ne. <laughs> waaw ñoo la dul may nga jàll de. <laughs> te xam naa xale yi dañ lay bloqué. bisimilah dinaa la bu ko dugal xaaral ma sama bopp bu ko dugal. <laughs> donc dinañu waxtaane euh, euh, cancer euh, maara day taali mais ab jàngoro la boo xamante ni tey mooy bis bi ñu jagleel xeexam Thioro ñu lay nuyu on en parle tout à l'heure c'est ça. namoon nañu la lool nuyu téléspectateurs yi <laughs> man ku leen tàgguwul. su la neexee ba sañ nga ñoo bañ a namm. waaw sañ nañoo bañ a namm waaye ñun sañ nañ ko namm. <laughs> nammanteew ma ak seen kayit ak seen kayit yu ñàppee ko. yi ay kayit yu ñàppee ko xoolal apulaay la ça c'est ça c'est dommage. apulaay la c'est dommage pour un conducteur. c'est ah, apulaay bon c'est pas grave. c'est apulaay donc cancer la ñuy waxtaanee. waaw dinañu waxtaanee cancer ci kanam ndax nag mu ngi jël ay proportions yu inquiétantes quand même euh, tey di bés bi nga xamante xamante ne moom la àdduna warngal këpp di ko euh, xeex mu mel ni daal lim gi fi muy toll file ci Sénégal euh, metti na bi gën a sonle di cancer du col de l'utérus nga xamante ni moo sonal jigéen ñi ñu toftal ci cancer du sein cancer ak cancer bu yëpp di ay xeetu cancer yoo xamante ni sonal na askanu Sénégal. voilà donc on en parle euh, tout à l'heure yàlla dañ ci yàlla musal heureusement ba Sénégal paraît am na ay prise en charge yu am solo yu ñuy jagleel li nga xamante ni ñoo ko am dinañ ci euh, indi ay leeral ak Corombaar Ndiaye ce sera pour. tout à l'heure bonjour Bijou Sy euh, dinañu waxtaane science ak yow euh, surtout que mardi bi euh, pour jumtukaayu xarala yu bees yi la il paraît que am nay xale yu jigéen yoo xamante ni dañoo def yëfu génie créer application pour aider ñi nga xamante ni ñoo ëmb te nekk ay xale te nekk surtout ci village yi Pape Cheikh bonjour même boo ñu namul woon namoon nañu la. namante ma ak yéen <laughs> namante par force affaire nam yéen yéen ci seen bopp yéen da ngeen bëggee affaire nam waaye ku leen tàggul war ngeen koo nam. waaye eh, ma kenn nam ma. Ah. ñoo la nam nii ma kenn nam ma fi rek ma namaat la <laughs> ay namante donc ñaari xale yu jigéen yoo xamante ne ñoom ah, am na benn euh, concours bu tugg jigéen ci teg hmm. euh, moom la ñu doon def bi ñu ko defee nag ñoom dañu remporté woon prix ba dajeek. Euh, chef de l'État sax d'ailleurs euh, léegi nag seen application bi dañ ko lancé pour mun a dimbali jigéen yi nga xamante ñoom ñoo ëmb ba pare nekk ci village yu sore yi parce que souvent euh, li ñuy wax mooy ñooñu dinañ ëmb aussi duñu am ñu def mooy application boo xam ne dañ ko jox bàjjenu gox yi nekk en ak médecin yi nekk fii su ko defee jigéen loo sori sori ñu mun la suivre c'est bien ça defe naa lu am solo la on va mm-hmm. découvrir ça avec des jeunes filles euh, qui namm naa la waaye man nammaat la waaw damaa dof <laughs> voilà Pape Cheikh donc voilà bu ñu la nuyoo nuyoo nuyu bokkal plateau téléspectateurs yi comme nu ñu koy defee euh, chaque mardi tey nag dañuy dem euh, pour andi leen benn vidéo boo xamante ne jot nañu ko euh, càmbar donc muy mbokk mi puis donc moom nag dafa def benn vidéo mais dans un autre style reggae lay def et puis on parlera aussi du rôle d'un producteur dans la musique comme ça nit ñi tamit bañ a di jaawale souvent parce que da ngay dégg problème yi ñu naan dama am problème ak sama producteur lan mooy producteur euh, yan rôle la war a jouer fan la war a mën a yem ak quels sont les droits qu'il a donc dinañ ci ñëw euh, bi ci kanamee pour yaatal temps yaa ngi toj dëkk bi de maa léegi ci série yi ah ci publicité yi te yow kenn du yegg sa xaalis man nag livre ouvert sama lépp <laughs> yow kenn du yegg ñëw rek ne nem yeewu leen nag ñun pare dem toog ne la ci ruq bi ndekete ex ay dex daal mu ngi toj dëkk bi alaaj bul alaaj bul waree waay. dama lay laaj rek. ana sunu di man mu ngàppaaral mi nga xam ne su may dem dul sax dama koy yëgle. ñëwati nga ñëwati nga dinaa débrief dinaa débrief ak yow Dior Mbaye du kañ nga koy dugal kañ nga koy dugal. jo Dior Mbaye jot nañu dafa neex de. waaw laale de de de de de de de de de de de de de de dinaa la laale. mais moom laa bëggoon invité suba justement. suba dañuy laale. et ce qui est grave dans cette chanson da nga koy déglu benn yoon ça reste dans ta tête. mélodie yi ñoo yor woy bi daf ma traumatisé. elle la laale. suba nag laa a laale suba dañuy oh bisou di la la mais demain parce que demain demain ñu dugal ko labo. non demain dañ ko andi dañ ko dugal ah, andi. elle viendra demain. elle va venir demain ak man a way. kat est venue bu mag la. macha allah man li muy def. très belle voix. on se rappelle de de de de de woyam li mu doon woy ci euh, un café avec. ça reste aussi dans la tête mais woyam bi moom mooy. mooy refrain bi yomb dafa dafa dafa baax daal c'est-à-dire xale yi di ko woyandoo moom kay bu ko xale yi reprendre rek mooy neex xale yi ñu koy reprendre wulala ñu ngi koy reprendre way bu neex la way boo xamante ne xale yi koy cere dafa mën a way neex na de ah ah neex na de laal du dafa way ba ci yàgg yëkkati dem ci ndéwél tuuti ah kàddu waa ji man loolu laa bëgg a wax beneen euh, facette bi facette la ñu gis si moom parce que d'habitude peut-être c'est afro lañ ko doon gis ay afro bi des sont comme mais c'est une griotte ah bi mu tal ah c'est une griotte nooy na nepp Riyot aussi ah. Ndiol Faye tegal ñu tegal ñu tegalaat ñu quand même tuuti ci Lale ak. Euh, euh, Dior bay en attendant ñu koy invité peut-être demain Exidex nous promet euh, qu'elle viendra nous voir pour qu'on parle de cette chanson way la boo xamante ni quand même dans la tête affaire de Lale. Mm-hmm. Ah, on adore la chanson euh, tey tegal nañ leen ko presque deux fois elle viendra nous voir paraît-il ak Exidex demain certainement euh, ci euh, yeewu leen bi alors ce ko va faire mooy tàmbali ak bis bi tey moom la ñu jagleel xeexuk jàngoro bi la ñu tudd ñu tuddee cancer donc Thioro jot na ci def ab gëstu. voilà euh, Pape Cheikh ni nga ko waxee tey di bés bi nga xamante ne euh, moom la ñu jagleel ci àdduna warngal këpp xeex cancer euh, mu mel ni nag ni mu ko waxee woon sànq cancer bi dafa nekk di jël ay proportion yu inquiétantes malheureusement li nga xamante ni fi nga xam ne moom moo di Sénégal mën nañu détecté ba di mille cas par an mu doon lu metti loo xamante ne nii du tout le temps le suivi bi di di di mën am dinañ ci ñëwaat ñu wax ni cancer bi nga xamante ne moom moo sonle fii ci Sénégal di cancer bu bëtutu njurukaay bi wala cancer du col de l'utérus c'est comme vous voulez euh, ñu toftal ci cancer du sein ginnaaw gi cancer du foie cancer bu prostate euh, moom moo euh, ci gën a bëri yi nga xamante ne moom moo di xeetu cancer yi ñu fàttali ne nguur gu Sénégal jëloon na ci ay jéego ngir ñu wàññi li nga xamante ne moom moo dem ci chimiothérapie mhm. ñu demoon sax ba am gratuité mais doyul parce que am na ay jéego yoo xamante ni faaw ñu def ko itamit ay machine radiothérapie Baye Cheikh mais ba tey euh, taxul itamit mu doy parce que vous n'êtes pas sans savoir que des gens quittent le fond le euh, euh, le fond du pays pour ñëw fi nga xam ne moom moo di Dakar pour faju tey boo demee par exemple hôpital Le Dantec dem fi nga xamante ne fa la ñuy fajee ñi nga xam ne ñoom ñoo am cancer da ngay gis ñoo xam ne daanaka dañ fay fanaan de deconson là-bas à partir de 4 heures du matin ñii 5 heures mën nga faran jëmale 13 heures te doo gisagum sa ay nit yuy ñëw ñëw di faju si te matériel bi yëpp euh, matewu ko ñi nga xamante fii cancer tollu tey dafa mel daf ñu raw on a l'impression que cancer bi daf ñu bett ñëw donc ñun amaguñu woon moyen wu peut-être jëlagum lépp ay ay euh, jëlagum yëpp disposition yi wax yëpp même si comme je l'ai dit tantôt ñu ngi ñu ngi jéem ci ay jéego mm. euh, pour mën a am fi nga fi nga xamante ne fa la nit ñi di fajoo gis nañ radiothérapie chimiothérapie bi ak gratuité bi mais doyul mm. parce que li nga xamante moom moo moom moo bëri mais leneen li ci am solo mooy ñu favoriser prévention parce que faju neex na waaye fexe ba doo feebar yaakaar naa ni moom moo ko moom moo ko gën comme on dit fagaru moo gën moo gën faju donc foog ñu foog ñu mën a xool li nga xam ne moom moo di prévention parce que tey même en dehors du cancer bëri na ay feebar yoo xamante ne wàllu hérédité lañ doon wax tey nekkatu ko tey par exemple boo duggee ci famille boo xamante ne benn nit ñaar moo fa jabet dañuy dem ba jabet bi day law mm. toj na fa ñaari nit mu commencé di di di law feebar bu mel ni asthme dañ la daan wax ni la tey hérédi euh, c'est héréditaire léegi mënatuñ ko tënk foofu parce que da ngay gis ko dem ba am benn âge bi ñu découvrir ci moom asthme donc yooyu yëpp nekk ay problème yoo xamante ne euh, foog nit ñi di farataal di fagaru mm-hmm. tey dañuy wax ni que ñun jigéen ñi nañu faral di def lépp loo xamante ne ay mammographie la wala yu mel noonu ngir mën a xam tey jigéen boo demee ba commencé gis mbaax war nga boo gisee mbaax ba pare nga tapoter sa ween xool parce que am na manière buñ koy defee xool def palpation xool ndax ndax ndax amoo benn boule boo xamante ne wala sentir nga ci dara lu bizarre boo ko sentiree lii gën ci njël yaram loo ci loo ci làmb te bokk ci rek wala daaw ko ci gis demal nga demal nga dem hôpital après autre chose peur dem di xool suñu yaram et pourtant lu baax la parce que euh, euh, bu ñu gisee dara dafay tax ñu euh, teel cee jóg balaa muy muy muy yokku mais bien sûr mais malheureusement ñun Sénégal parfois bu sa tànk daggee sax da ngay nëbbatu tey am na feebar yoo xamante ne tabou la dans les familles mm-hmm. parce que feebar bu bon bi sax lañ koy tuddee tey mm-hmm. cancer par exemple boo ko amee ci kër dañuy dañuy nëbb waa nit ñi dañ lay bedd et je pense que tey foofu la ñu war a gën a taxaw bu ñu jógee ci prévention bi wax ci li nga xam ne moom moo di soutien bi ngay soxla tey jigéen bi am cancer dafay baax jëkkëram taxawu ko topp ko seet ko seetantal ko gunge ko ci ay rendez-vous am daf lay yokk réconfort am na ñoo xamante ne tey ñu ngi dee ci cancer mais am na ñu wér ci cancer tey boo demee Liska di nga fekk ay jigéen yoo xamante ne ñu ngi dugg ànd ak ñoom ci liggéey bi parce que dañu amoon cancer ba wér ki te mais ñooñu xëy ñu xëy rek wér euh, c'est tout un processus dañu teel a détecter feebar bi dañu nëbbatuwul dañu dem hôpital dañu wax ak ñi ñu war a leen taxawu donc je pense que tey foofu la feebar yëpp toll en dehors du cancer képp ku feebar da ngay soxla soutien parce que jàpp naa ne soutien 40 pour cent la ci mm-hmm. wàllu faj wala 45 pour cent mm-hmm. après li ki des pour xëj na hôpital mottali ko day yomb mais encore une fois tey dañuy wax ni jigéen boo xamante ni euh, commencé nga euh, euh, commencé nga def sa activité sexuelle war nga mën a dem xooli sa bopp pour lu jëm ci wàllu cancer du col de l'utérus mm-hmm. jigéen boo xamante ne ni commencé nga gis mbaax war dafa dotom kii bu dotomul woon toojub réew heureusement ba mën na wax ba daaneel doo xam ne mu wax ak tiri sa yàlla yàllaa ñu suturaal ba xam ba doomi Serigne Mbacke Ndiaye ji daan dotom ndax kii bu dotomul woon tojub réew activité fefeet angali yii rekk a tax bëgguma ñëw yeewu la activité lan nga wax fefeet léegi boo ko tàmbalee lan moo la war di dem di seet sa jigéen bu xas a am actu jigéen bu xas a am actu tu es grave. moi je t'adore c'est un très day dem defi frottis. parce que frottis boobu mooy tax. ñu mën a détecter ou pas cancer du col de l'utérus. Ah bu fekkee ni que teel nañ ko détecter ci yow dañ koy dindi. mu mu mm-hmm. après nga nekk ci sa bopp. coono ma ma ma sànni foofu tuuti grain de sel rek. Mm-hmm. ba pare nit yi di farataal protection parce que cancer du col de l'utérus utérus du jigéen moom mooy am virus bi koy joxe góor moo koy jël indil ko jigéen te bu fekkente ne euh, yaa ngi protégé wu peut-être mun na mun nga si mucc loolu la ñuy tuddee papillomavirus mooy virus yoo xam ne feneen lay jóge voyager ñëw ba ci yow cancer bi dal la donc même bu fekkente ne li maire yi di wax nañu takk série comme euh, maire bi ñu abstinence euh, mais maire bi ñu jël démb Ndeye Diouf femme femme voilà Ndeye Diouf bu sëñ Fall lu muy wax takk leen seen série bu fekkee defoo leen ko protégez-vous parce que plus ngay am ay rapport non protégé plus prend des risques à avoir le cancer. et puis di teel a dem di teel a dem di di di di xool sa sa bopp. Mm. cancer yi dafa bëri y' a mm. pas que yi ñu lim rek. du mm. cancer du col de l'utérus kese du cancer cancer. cancer de la gorge cancer du foie. cancer des os cancer des os j'ai découvert ça cancer de la peau cancer du sang. gorge dafa dafa mm-hmm. bëri cancer. recherche bi dina gën a am. c'est pas ça. góor ñi nag quand même prostate moom. ba tey bokkul ak prostate cancer waaw. parce que góor yi tamit am nañu ñu nit ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni saytu. on les appelle les les les urologues. Mhm. urologue laay dem seet mu xool lan. bien sûr parce que góor ñi dañuy am cancer du sein dañuy am cancer bu prostate bi. comme ñun mais il faut ñu wax que jigéen ñi itamit nañuy faral nañuy farataal nàmpal. Mhm. parce que ki la gën a mën nàmpal. moo la gën a mën a am moins de risque am cancer du mhm. sein par exemple. donc tey c'est vrai que jamono dox na ji góor ñi jigéen ñi toogatuñu tout comme góor ñi. mais du tere nga def sa allaitement. Euh, pour sa doom parce que non seulement baax na pour sa doom mais baax na pour yow jigéen ñi parce que souvent médecins yi dañ lay wax ni que jigéen bi la gën a ñeme nàmpal moom moo gën a am moindre risque am li nga xamante ne moom. mais on a a pas on a pas de sein pour l'esthétique bah oui c'est un instrument boo xamante ne pour xale bi da ko soxla. voilà pour mu namp voilà pour pour donc loolu c'est euh, c'est quand même faut pas que non plus nga am dara loo xamante ne ça sert à rien. donc daf fi nekk parce que yàlla am na lu lu tax mu def ko fa. Oh. te loolu nag ya ca nekk ci ay bienfait xale bi moo ko soxla. bien sûr voilà. Euh, intéressant en tout cas donc tey mooy bis bi ñu jagleel euh, xeexuk euh, jàngoro bii di cancer donc ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ko am yàlla may leen wér parce que feebar la boo xamante ni dañ ciy wér bien évidemment bëri na ay exemple wala ay nit yu ñu leen mën a woon nga xam ne ñoom it dañoo cancéroon léegi moi je connais comme ni ma koy waxee tout le temps benn jigéen boo xamante ni voilà elle elle est trop jolie wér na ci cancer am et voilà lépp rek ci mental ak euh, nit ñu koy jàppale alaaj Njaga Mbay ne woon na daw ku wéradi euh, bul ko daw ba mu xam ko mën naa yokk la ko metti mm-hmm. euh, segam tubaab am psychologue ñun souvent ñu ko soxla lii gën a am solo rek mooy jàppandal gi ci diggante borom kër ak soxnaam ci diggante yaay ci diggante papa ci diggante mag ci diggante rakk ci diggante xarit lépp rek ci sutura en tout cas merci pour ces infos jëm ci cancer Coro Mbar ci bis bi la nga xam ne moom la ko jagleel jot suñu vue d'ailleurs bi euh, vue d'ailleurs mooy euh, euh, yenn ci ay reportage yoo xamante ni ay télévision étrangère ñoo ko def jagleel ko ay sénégalais wala Sénégal bi ñu tànn tey benn reportage bu ñu gis ak suñu ay confrères yu BBC ñu jagleel ko suñu benn jigéen boo xamante ni États-Unis la nekk tudd Ami Dia alors Ami ñaa Ami moom dafa am doom boo xamee nii dafa amee laago laago boobule mu am au départ dañ ko ne woon sa doom bi du juddu après ñu ne ko dina juddu juddu mais du gudd fan après ñu ne ko peut-être mën na gudd fan mais dafay am malformation mais moom mu gëm yàlla rek ne écoute yàllaa ma ko jox euh, ak lu mënti am damay jéem a débrouiller wu euh, nekk ak moom et heureusement euh, doom ji màgg na ba tey li nga xamante ni moom lay jàppale handicap bu doomam boobule daf ko gën a tasaare fii Sénégal souvent elle amène du matériel elle de de de ay ay ndimbal pour ñi nga xamante ni ñoo jur doom yu amee laago donc c'est un reportage réalisé diffusée en français par nos confrères de BBC. Regardez notre vue d'ailleurs de ce matin et puis juste après, nous commentaires. Ma vie, pendant 14 ans, je vois ma fille normale. Je ne l'ai jamais vue handicapée. Et pour cela, tout ce qu'une mère doit faire pour un enfant, je le fais. Non seulement je suis très curieuse depuis sa naissance, je suis devenue ce que j'appelle doctor mom. Je la douche, Et jusqu'à maintenant, elle a 18 ans. Je la laisse être indépendante, mais chaque week-end, je la douche. Parce que, oui, il y a des parties où elle ne peut pas pourra faire toute seule. Je lui ai le bas âge comment s'asseoir, parce qu'on m'a dit elle ne va jamais marcher. J'ai dit OK. Même si elle ne marche pas, elle va essayer. donc la première fois qu'on m'a la chaise roulante, je l'ai jetée. Parce que tout, automatiquement, je me suis dit, la mets la chaise roulante, elle va s'habituer et je ne vais pas faire des efforts pour l'aider parce que c'est trop facile pour moi de la laisser assise toute la journée. I'm so proud of you <laughs> with a smile. Bye my love, I love you. Blessing. Ciao. Alors, pour s'épanouir, elle fait la danse, elle fait la piscine, elle fait la marche. On part partout ensemble, on fait tout ensemble. Tout ce qu'un enfant normal doit faire, je le fais faire à elle. Et je lui dis, tu es normal, tu peux. Take your time, you can do it. Yes. Don't be too excited, just walk. See, you are too excited, that's why. Come on. I know you can do it, yes. elle a parlé ses premiers mots à l'âge de 4 ans et demi. Et maintenant, à l'âge de 7 ans, quand on m'a introduit à la thérapie des chevaux, j'ai essayé avec elle. Et c'est là qu'elle a commencé à faire les premiers pas. Et je vous dis, c'était énorme. Je ne sais même pas si je peux toujours expliquer ce bonheur. Je me rappelle très très bien, c'était dans mon appartement. Elle n'a pas rampé. Et tout d'un coup, j'étais dans la cuisine et je vois quelque chose passer. Et elle a crié. Et je me suis retournée et elle ne s'est pas appuyée. Elle a fait deux pas et j'ai sauté et j'ai crié Elle marche, elle marche, elle marche. J'ai crié et elle a crié avec moi. C'était immense. Everybody in my family treats me like a regular child. It doesn't seem me that you have a disability or anything. My mom is a wonderful woman. She sacrificed a lot for me. She left her million dollar job just to take care of me by herself. My dream is to become a photographer. I've been practicing it at school, at home. I love taking pictures. That's my dream. Najiba a beaucoup évolué. Elle marche, elle parle quatre langues. Donc, euh, elle aime apprendre. Elle est très curieuse comme ça, Donc, euh, c'est ce qu'elle est. qu'est-ce qui Je vais dire ma fille. Parce que j'étais rentrée en 2013, définitivement au Sénégal. Et pendant neuf mois, je ne pouvais pas trouver une bonne école pour ma fille. Les thérapies coûtaient excessivement cher. Il n'y a pas une assurance pour moi. Pour la... Je suis retournée. Ma fille me, trouvait, me faisait une dépression pour rester dans la maison et ne pouvoir rien faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait fonder ma fondation pour aider les enfants qui sont ici à pouvoir atteindre leur thérapie, leurs leur, leur soins et l'éducation inclusive. Parce que ça ne doit plus être tabou, on ne doit plus les cacher. On me dit arrête de montrer ta fille. Non, je vais montrer. parce que je suis fière de ce qu'elle est devenue, je suis fière de moi, je suis fière d'elle. Alors, il faut que ces enfants-là sachent qu'ils font partie de la société. Si je suis arrivée, vous pouvez y arriver. Voilà notre vue d'ailleurs de ce matin euh, un document réalisé par nos confrères de euh, BBC euh, dafa laal Sénégal euh, puisque euh, ki ñu présenté noonu sénégalaise la bu dëkk États-Unis sunu xarit la d'ailleurs ah. Mhm. Aminia Dia ñu ngi koy kiis di ko mhm. fóon elle est tellement brave. Mhm. elle est souvent venue nous voir ci yeewu leen bi donc reportage bi daw yaram lool donc on s'est dit pourquoi pas ñu partager ko ak yéen comme quoi yàlla rek xam waaye baax na itam boo donnee papa wala am doom joo xamee ni euh, dafa amee jàngoro wala dafa amee plago euh, boo ci farluwul rek du baax donc farlu bi mooy indi euh, doom bi màgg normalement mm. malgré handicap bi ou feebar bi et je pense que c'est un bel exemple super exemple Pape Cheikh et ce qui me touche le plus c'est que là l'enfant parle quatre langues ah. mi ngi ne photographe la bëgg nekk def équitation danse activité yu bëri yoo xamante ne xale yi ñuy tuddee normal en général sax duñu ko def te boo dee xool elle dañ ko ne woon déjà ñu interrompre grossesse bi ensuite xale bi judd ñu ne ko du dund a été proposé ko pour ñu ko quoi merci beaucoup pour débrancher ko man force de force de caractère bi mu am ne leen non gëm ne que moom doomam dafay dund et que jël vie wam yëpp déjee ko ko a mm. chaque fois muy def de sorte que doomam euh, situation di améliorer c'est ça qui touchant mm-hmm. et qui donne un exemple pour yaay yu bëri yoo xamante ne dañu am doom yu am laago parce que souvent fii dañ lay xoolee benn bët doomu laago yow ngay rus di ko nëbb merci beaucoup hmm. moom exemple la boo xamante ne yu bëri war nañ ko rapproché pour xool hmm. naka la ñuy seen doom ndax yow yaay ji ni nga ko xoolee ak ni nga ko gérer rek la ko hmm. société bi di xoolee soo jëlee sa doom respecté ko mettre ko en avant jiital ko ci lépp ñeneen ñi noonu lañ koy xoolee franchement j'ai envie de lui dire bravo mu nekkoon dama koy nga ci di nga ci mën a dafa souligner lu lu lu important moom mooy en moment dafa ñibbi si Sénégal toog fi neuf mois yoo xamante ne elle avait décidé quand même ñibbi si dëkkam mais dafa dem ba nga xamante ne environnement bi permettre ko doomam mu am école bu baax di jàng am yenn soins yi ça coûte loolu nag defe naa wax na lépp jundu doy na boroom xel et que ñi ko am aussi nekk donc Sénégal dafa am ñaar yu am solo yoo xamante ni malheureusement boo amul boo yorul boo ko mënut du baax muy wér gu yaram ak njàng meeg njàngale meeg éducation ak système sanitaire boo amul xaalis doo ci am bu baax c'est dommage c'est dommage école maternelle rek nu mu boo amee xaalis école privée soo feebaree euh, am xaalis clinique loo ci amut rek yàqu on est très en retard par rapport ak dëkk yu bëri tey on a des enfants yoo xamante ne ay autistes lañu fii pour nga am école boo leen dugal c'est tout un problème su ma juumul benn école rek moo fi am bu leen di accepté te pourtant tout xale yi nga xamante ne dañu am am autisme mu ngi gën di yokku mm. mais malheureusement euh, tey am na xale yi nga xamante ne dañu di jël bëriwul et puis même yooyu dañuy taaba taaba parce que amuñu les conditions ils sont même pas formés ils sont dañuy taaba taaba y a très peu yoo xamante ne mm. prof yi wala maîtresse yi maîtres am nañu formation pour mun prendre en charge xale bu trisomique tey wala xale boo xamante ne am na autisme parce que dañu tàmm tellement xale bu mel noonu ne demal yalwaani wala toogal si gi mm. wala de toute façon du mun a def dara donc je du ma investir si moom je connais tellement de femmes yu braves quand même parallèlement yoo mm-hmm. mm-hmm. yu ils n'ont pas ce euh, complexe du ma mais j'ai comme tu regardes son reportage là tu es fière d'être une femme mm. et là tu as envie d'être une femme parce que jigéen nii la war a doxalee mm. mais malheureusement ñun société tout le temps contraire bi nañu wane ay jigéen yoo xamante ne dañuy xarabante ay jigéen yoo xamante ne dañuy xastante wala jigéen sax buy xas moroomu jigéenam que dafa jur doom boo xamante ne dafa laago te magasin u jigéen magasin u yàlla ci jigéen la ko def ah. yow mi koy xarab di ko tuutil wala di ko ah. tooñ di ko jokkat bi mm. sunu borom mun na la may loolu ah. mais lu mu ci munti doon liñ ci mun a jàngat mooy jigéen da ngay gëm sa bopp am pas-pas ba pare di fonk au fait il faut nga demee ak ngëm-ngëm ak pas-pas te bul découragé sacrifier yow am 18 ans di jànkatu am 35 ans di jànkatu am 60 ans di jànkatu <laughs> derrière toi tes enfants sont là tey da ngay gis koo xamante ne yàkkamte na doomam wàcc école mhm. sànni saagam ba ne ko demal nga fowi dem on prend pas le temps de xool suñu doom yi naka la ñu yendoo naka la ñu fowee naka la lii naka la ñu laa tey ñaata xale nga baal ma la ñu sàkku peut-être ci mbedd mi seen yaay yi xamuñu ko sax parce que amuñu temps boobu pour seen ay doom donc je pense qu'il est important sawlu rek laa si bëgg a nuyu parce que mm-hmm. moom elle a un enfant trisomique elle a un enfant trisomique non ah. seulement elle s'occupe tellement bien de son enfant ba pare day aider yeneen yaay yi nga xamante ne dañu am doom yu handicapé on avait fait un reportage ak moom si euh, jour bu ñu jagleel xale yu trisomique yi ah, et man bu ma fa demee damay dama leen di fan limite genre parce que c'est une femme tellement brave je man tamit dama bëggoon sama benn xarit mm. donc moom tamit doomam pareil trisomique la mais dafa gëm boppam dem na ba ci biir après dañ ko tànnaloo ne ko entre sa doom ak sa liggéey lan nga bëgg mu ne damay toppatoo sama doom mais léegi faj na doomam mm. mi ngi koy yore à côté ñi ngi ko jàppale dugal ko ci école jox ko sax këyit ndax acte bu noble boobu mu def mm. donc bu leen am complexe par xam naa ci kenn koo xamante ne bugguma sax wax turam mais bon mm. j'ai tellement envie de rendre ko hommage parce que gis naa ni mu téyee doomam ba doom ji euh, euh, limite euh, moo gën sax ay moroomam muy Evatra voilà Eva Tra Eva mi ngeen di gis muy xëy euh, di ñu accompagner yoor-yoor yi ci télévision Futur Média elle aussi euh, elle fait partie de ces braves mamans euh, yuy toppatoo seen ay doom am na ci Rokhaya que nous embrassons très fort mm-hmm. di sunu princesse comme quoi doom moom bu la ko sunu borom baaxee fexeel rek mu amee laago ou pas nga toppatoo comme il faut donc Eva qui est tellement brave en plus tey l'anniversaire Eva Tra ah, ah, ah on va chanter

Ngato ak euh, Sondel ca kanam xam naa balaa ñu jeexal leen bi euh, donc Eva Tra on te souhaite beaucoup de bonheur moom euh, c'est une femme qui est tellement positive. mënuloo ko xam tant que jegewuloo ko donc Eva on t'embrasse et puis ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire 9 h cinquante mooy doog a jot balaa ñuy jàll ci beneen sujet yii dama ko fàtte woon ay enveloppe la yoo xamante ni bu ci nekk am na lu mu def. ñaata ay enveloppe gu 100000. Mhm. ay enveloppe gu 50000. pourtant ay 100000. 100000 rek laa fi gis de. la ay 500 rek. ñaar fukki ñaar voilà loxo ñaar fukki junni ku dugg léegi nii ñu teral ko ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ñi ngi affiché wu ci suufu écran bi ku dugg <laughs> euh, lii sa wërsëg ñu baaxee la ko donc 100000 francs léegi nii euh, ci euh, téléspectateur bu njëkk a woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñoo ngi koy affiché ci suufu écran bi je rappelle que des na tirage auto bi. oui oui joxe guñ ko quand même. defe naa joxe nañu ko depuis a démarré le euh, Sénégal donc moi je suis venu la voiture ah <laughs> après je retourne chez moi. loolu la ñuy xaar. loolu la ñuy xaar en marmande. parce que boobaa c' est gàllankoor yi nga gis suñu yàlla. nga boobaa. Pape ah, yow bi ngay ñëw yëgoo doon yëgoo doon. c' est déjà là je vous donne par deux. après je fous le camp. fu muy jaaroo je refoule corps feu bi crépité maa gis kenn ne ko maa gis kenn yow ku neex ne ko maa gis ku neex yow ne ko yow foo dëkk mu ne ma fóor kaa ginnaaw merde <laughs> <laughs> j'ai adoré ça keroog dama ko may 10 euros <laughs> naa ma sawaay fi ma dëkk ni mu sore fóor kaa ginnaaw merde sori na mu yëkkati 10 euros ne ko am seddal ba sama xol bi naa ay terminus RR yooyu la lay laal moom sori rek donc euh, je vous offre une semaine fin de mois. Euh, profitez-en en attendant li ñuy buddi benn par euh, benn li ñuy buddi beaucoup bu xanaa xamoo bijaaw li ci garaaw mooy bu saa yoo dindee benn par groupe bay ñëw. <laughs> par groupe jéemu koo laal. gang gang ci fula. <laughs> ah alaaka damaa njëkk bijaay pokotaan di dindi muy ñëw fi mu ne fii yëpp a weex. <laughs> macha allah léegi fii attaqué fii nag. du ko walaat na lay bàyyi ba nga nelaw bijaaw boo gisee benn buy ñëw rek booy dindi muy groupe boo di ñëw fii damaa weex taal. te donc su <laughs> ma weexee fii. fekk nga beneen xanaa maay Père Noël. waaw waaw. bàyyi leen ba semaine laa leen di may balaa may delluwaat. Ah. profité leen ci man ci sama semaine bi nga xamante ni dama leen koy may donc ay enveloppe yoo xamante ni bu nekk cent mille la. par des tableaux par des tableaux. waaw bu ma weexee fii four. xanaa maay Père Père Fura. ma ca kii ba émission boobu di daw tubaab bi. Père Fura. xanaa su ma furfuree fii xaw ma pe furaas xam ne du dee mukk bi ñu nekkee xale ba tey màgget la weex tal di lox xanaa su ma fur fii Master Nicolas doo bàyyi fépp laa fourré mais boo quand même faites très attention il faut que Mado un jour tu nous euh, quand même quelques conseils de bijaaw parce que paraît-il boo dindee benn euh, mën na mën na na indi euh, en fait dafay mel ni dafa mel ni lu ñuy accéléré moi j'ai tenté j'ai eu quelques quelques bijaaw ma dindi après mu yokk fii dama koo laalul déggoo bal fii laa laal bu jigi ma fuur waa léegi su ma furee fii xalaat ma waay Pep Fra. je vous offre une semaine de moi avant de euh, de retourner dans mon chalet, avant euh, de près du Mont Blanc profitez-en donc une semaine avec vous je vous offre des enveloppes saa yu daal naa yëkkatee enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na euh, cent mille en attendant ñuy tiré oto bi nga xamante ni moom la ñu tegoon euh, ci Teranga Sénégal donc premier téléspectateur de ce matin allô allo waaw. kooku kan la. waaw man la Mame Fatou bu ci ci. yow la yow la kan. Mame Fatou Cissokho. Euh, fan ngay wootee Mame faatu maa ngi wootee Thiaroye. ban Thiaroye Azur wala sur mer. Thiaroye Azur. Thiaroye Azur naka waa ñu ngi fii rek di kontaan ak yow billaay kontaan nañu man gëj naa caare Azur te ju Mariane ba sama xarit ba fa la kontaan nañ ci suñu liggéey. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, ah? nga ni. man nee leen yàgg naa ci mais bi ma dégg bu baax yàlla tey ci liggéey bi amin amin amin amin amin amin ndeysaan Sissoko Sissoko Banna. dama ne yàgg naa yàgg naa ci réseau bi. waaw donc tey jot nga moo tax euh, xam nga dama ne euh, dootuma sax teg tableau teranga Sénégal bi léegi ku woote rek dama lay may cent mille. maam Fatou. Sissoko. i ka kii de ka mufoo. te maa ngi entraînement de jàng bambara damay waaj dem Mali. na la kii a jàngal. i ka doro. awa tarwale su ma ko <laughs> lakk ba diis il faut nga lekk lu diis doo ko waa Mali xam naa may dem ñànkatang laa lekk su ma ko i ka kene ere <laughs> doro. <laughs> dama mel ni jànk bi ñu ñaawale. allez Mame Fatou Mame yeewu leen mbay na la. cent mille francs. maam ma konteel la. maam daa kontaan déggante eh, ah kon yow télé bi ngay dégloo maanaam li may wax le temps muy jógee almadi di dem caaroy. ah la la la la francs yi laa lay konteel nii 10 20 30 40. 50 60 70 80 90 100 Mame mam faatu ko moom yaa ko moom merci ne raccroche pas comme ça ci ginnaaw ñu xool nu ñu lay jëlee te nga may sa nawle yi ci topp dugg ñoom it ñu jox leen ku ne euh, euh, cent mille euh, francs bu ngeen dee wootee na ngeen dégloo ak seen ay téléphone parce que diggante fii ñu ne ak fi ngeen nekk woote bi bu fay jógee di dem ça de prendre du temps et que ñu mën a déggante bu baax donc bu amee beneen téléspectateur ngeen baaxee ñu ko ci numéro téléphone yi nga xamee ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi donc ñu ngi leen di xaar 9h57 mooy doog a jot normalement si décembre. Euh, fii la war a ndekkee tey de doomi Daaru Mbay ji. ah oui Sidi je te jure ah oui kooku c'est la war a ndekkee de ndaanaan la ndaanaan ah, xaw ma fu mu toll nag waaye Sidi Samb fii la war a nekk ndekkee dans les normes ah. mi ngi si embouteillage rek ah, yoof moom très grand artiste. ah oui ah Sidi eh. macha allah Sidi Primavera. ah Primavera ah. <laughs> exactement. Sidi espagnol la. Eh, macha waaw day day làkk. Eh. day day day làkk day làkk. bu la nee alors ne le mystère. bon il viendra nous voir que bëri euh, ay projets yoo xamante ni si décembre moo ngi ci il sera avec nous dans quelques minutes euh, ci euh, yeewu leen bi donc pendant que ñu leen di permettre ngeen di composer benn ci numéro téléphone yi on dañ leen bëgg a présenter ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni ay idées génie la ñu am donc ñoom ñaar dañu defar benn application boo xamante ni c'est pour aider jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci àll bi te won na lool. Naden Ndiaye ñoom euh, li ñu teg mooy euh, li ñu mën a tuddee premier start-up de télémédecine euh, boo xamante ne moom moo am fii ci Sénégal. n'oubliez pas que je vous offre une semaine de mois donc profitez-en allez vas-y avant de retourner dans mon chalet. près de la Marmande si dans lot garonne près du Mont Blanc continue. <laughs> j'en peux plus. ay mat ay mat la ñuy way. su ma fa jógee je pars au Mali. <laughs> man au maa nga jëm ca aérodrome ja <laughs> aérodrome ja su ma xubbee di i kàkkee nii. yaa ngi dem ci defar dëgg. Ah, yow da ngaa yëgul ni ñun dañoo war a ñëw ba préparer la ay dóor collectif fi mu toll nii nga ne da ngay demaat. suñu yaramu neen nga nar a gis. applique applique moi ñiy indi leen ci <laughs> seen. bilaay loolu lañ nar gis tey donc Pape ñi ngi tudd Awa Ndiaye Aïda Bernadette Ndiaye nekk ñaari xale yu jigéen ñi nga xamante li ñu teg mooy projet njuréel benn start-up boo xam ne dafay permettre ñu am télémédecine ndax ñoom li li leen boosté mooy que OMS dafa joxe benn chiffre boo xamante ne c'est tellement alarmant que Afrique 32 pour cent wu femmes yi accouché dañuy décédé parce que amuñu assistance donc chaque deux heures dina am benn jigéen mara buy décédé ci accouchement wala bu accouché ba pare ñàkk doomam surtout ci li ñu tuddee zone rurale maanaam biir village yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a sori ndax di nga gis jigéen boo xamante ne euh, boo xamante ne c'est obligatoire boo nekkee enceinte donc ñoom li ñu def mooy collaborer ak bàjjanu gox yi euh, installer application bi si seen ay téléphone de ce fait bu fekkente ne même fi nga nekk amoo médecin yow mun nga dem seeti bàjjanu gox bi comme ça moom euh, di nga am benn suivi booy am ku ci nekk dangay am sa profile am sa suivi et puis même ci accouchement bi boo amul médecin sa wet mun nañ indi bajanu gox euh, médecin bi di leen assisté ba nga accoucher ci jàmm comme ça ñu mën a réduire taux de mortalité maternelle bi ak néonatale bi ñu déglu leen ñoom ñaar ñu waxtaanee seen projet bi fan lañ ci toll parce que président de la république accueillir na leen mais il leur manque toujours des fonds pour mun ko développer à l'échelle nationale Bijou créé nañ benn application boo xamante ne c'est la première plateforme de télémédecine au Sénégal euh, boo xamante ne ça dafay assurer suivi régulier aux femmes enceintes yi nekk dans la zone rurale maanaam ñi nekk côté Kolda Ziguinchor et cetera te ñu war a matu amuñu possibilité ku leen jàppale amuñu assistance médicale. application mu ngi tudd Njureel euh, ñoo ngi ko créé parce que dañoo dañoo gis ne que depuis plusieurs années Afrique dafa am fort taux de mortalité maternelle et néonatale jigéen ñi nekk ci zone rurale bi amuñu assistance amuñu ku leen dimbali. bëri dañu war a accoucher ji dañu ci bëri sax xamuñu ne que dañu leen war a suivre tout au de leur grossesse par un médecin loolu tax ñu ne pourquoi ne pas créer ce système là boo xamante ne dafay permettre euh, femme bi zone bi mu nekk que ça soit Kolda Kédougou wala Matam mu toog fi mu nekk et un médecin ba nga xam ne mu ngi nekk à Dakar mën ko suivre à travers notre plateforme. ci kaw loolu xalaat nañ si bu baax te si li ñu jot a def dañoo prévoir que ku jigéen ki su fàttee benn benn rendez wala benn benn consultation mu war def benn alerte bu ko logiciel bi di envoyé ne ko jour bii nii war nga dem ñu consulter la wala jour bii nii ay am na ay vaccin yoo war a def daf koy gën a jàppale si suivi grossesse am mu gën a mën a pare ci accouchement wam xam ni muy réagir en conséquence en cas d'urgence ni muy doxee c'est très simple euh, dafay souscrire léegi bu souscrire moom dafay daf ñuy wax date dernière règle mi léegi à partir de la date de ces dernières règles système bi dafay daf koy wax ne que mu ngi mois de grossesse bu médecin ñun dañ koy affilier médecin boo xamante ne moo ko moo koy suivre dafay am euh, dossier médical boo xamante ne c'est électronique dafay am possibilité mën a gérer calendrier de grossesse am dafay am possibilité mën a waxtaan ak yeneen naataangoom yoo xamante ne c'est des femmes enceintes euh, partager expérience yi ñu mën a waxtaan dafa am possibilité tamit fi mu toog Euh, bu dee am na connexion parce que système bi dafa nekk ñaar dafa am bu am connexion ou pas bu dee am na connexion mën na géolocaliser tey ji euh, pharmacie wala hôpital wala clinique yi ko gën a jege dafa am urgence. application bi jamono ji ñu ngi ci stade développement logiciel bi lancé nañ site web bi ba pare ñu ngi xool ñu ngi ci finaliser logiciel bi en attendant derrière ñu ngi commencé di am ay prospect prospective pour def étude de marché bi ci gannaaw xool ñaata femmes la ñuy jël ñoo xamante ne mën nañ ñoo jàppale pour améliorer application bi pour gën ko taxawal pour ñi ko soxla te en 2018 la gagné prix jigéen si TIC bi mm-hmm. léegi par la suite application euh, projet bi ci journée de la femme wu 2018 2019 la gën a siiwee et si loolu nag ci la porte yu yu bëri ubbeeku parce que dañ ko jot wone si benn forum boo xamante ne ñi ñi dañuy ñëw ñi leen di ñi leen di woon wax application bi luñ si jublu et derrière ça aussi on a été reçu par le président au palais qui soutient initiative et qui nous appuie ñu ngi xool ñan ñoo mën a war a dimbale ñu ngi xool ci côté ONG bi côté ñi nga xamante ne si as si si côté médecine bi la ñuy yëngu ñi nga xamante ne dañoo bëgg jàppale xale yi bëgg jàppale ñi nga santé maternelle bi surtout bëgg ñi nga sensible ci côté santé maternelle bi ak ñi nga xamante ne dañuy bëgg jàppale xale yu ndaw yu tout tànk yi nga xamante ne amaguñu dara. suñu objectif final mooy wàññi taux de mortalité bi lié à la maternité gën a jox xale yi. seen yaram yi gën a dëgër si suivi post post naissance bi nga xamante ne dañ leen di rappeler seen vaccin yi et tout Bijou créé nañ benn application. yëpp dañu am euh, talent bu euh, exceptionnel pendant que Sidi Samb di ñu rejoindre ba ñu koy installé puisque tey fii lay ndekkee euh, ñu commentaire tuuti ñooñee ñu leen présenté ñoom ñi nga xamante ni dañu créé application boo xamante ni c'est pour aider les femmes enceintes surtout celles qui sont dans dans dans les villages. parce que ñoo ko gën a soxla Pape ah. Cheikh fii au moins boo doxee tuuti mën nga gis benn hôpital wala nga dem ci benn centre de santé ñu mën la xamante ne dañ lay wax ni hôpital bi balaa ma faa egg dinaa jël charrette dinaa dox temps de kilomètres et puis parfois coono bi du leen ko jaral donc dañuy préférer toog seen kër bu ñu accoucher lu ñu am jël te loolu moom mooy tax euh, chiffre bi OMS avancé euh, du wàññeeku 32 pour cent quand même sur une population en Afrique c'est juste énorme te bu ñu ko xoolee ñëpp ci zone rurale yi la ñu nekk ñoom seen projet bi c'est pour développer santé bi nga xamante ne moom la ñu am fii ci suñu dëkk muy Sénégal ñoom ñi ngi tudd Awa Ndiaye Aïda Bernadette Ndiaye seen projet mi ngi tudd Njureel il faut que ay bailleurs jàppale leen ay ñoo xamante ne dinañ ñëw mun a investir comme ça ñu gën a développer application bi ba nga xamante ne tey même bu fekkente ne médecins yi egguñu yenn zone yi am na ay bàjjanu gox yu fa nekk am na formation bu minimum bu ñu am médecin bi dina mun a dimbali euh, jigéen bi nga xamante ne moom moo nekk enceinte mu am suivem am li nga xamante ne moom mooy carnet de santé am lépp rendez-vous vaccination yeeg lépp lépp lépp mi ngi si biir application communication bi ku nekk sa profil personnel nga am et puis ça am ay rappel ci rendez-vous yi ñu war am kañ nga war a ñëw parce que même boo ko fàttee application bi dina joxe alarme nga am sa rendez-vous vaccin yi ñu rappelé la ko de ce fait di nga mun a am sa santé sa doom am santé mortalité maternelle ak euh, infant néonatale bi wàññeeku bu baax te loolu mooy objectif médecine bi yaakaar. mais c'est bien on leur souhaite bonne chance en tout cas euh, euh, na déjà. disponible na la tudd nañ ko télécharger mais il faudrait ñu aider pour ñu gën ko établir partout au Sénégal et même au-delà. pour on ne sait pas naa ni du Sénégal kese ñoom ñoo am problème boobu nga xam ne jigéen yi nekk ci zone reculée yi dañ ko am Euh, ndax chiffres yi ñuy joxe jagleeluñ ko Sénégal kese mais Afrique yëpp la ñu wax ni que moom la concerné. mais merci Bijou euh, am na solo et y a d'autres jeunes comme ñoom ñaar euh, di góorgóorlu bu baax di créer ay start-up def ay application ñun recevoir nañ ci ñu bëri souvent donc on demande aux autorités ak ñi nga xamante ni am nañu doole quand même ñu leen di jàppale. Mhm. parce que grâce à ces jeunes génies mën nañu dem ba Sénégal lu ñu namati lu bëri ci ci ci ci wàllu développement. wàllu développement wàllu science souvent dañuy xalaat ne ñun moomuñu ko alors que jeunes yaa ngi fi di liggéey donc li ma leen di ñaan rek mooy ñu am courage ñëw si télé bi ñu waxtaanee ko on leur demande pas de divulguer naka la defaree seen projet bi parce que mun nañ ko pirater mun nañ ko jël mais juste wane na que ñoom ñi ngi liggéey fii lañ ci toll bu ñu leen poussé ñu daal di jàll ndax science bi souvent li ñuy seen problème mooy problème mu xaalis problème mu financement ñi ci am financement en général ay concours la ñuy def euh, au niveau international pour mun financer seen ay projet mais jeune bu ci am projet scientifique contacter ñu ñu wane ko su ko defee nga mun gën a avancer parce ko Pape Cheikh. mu ngoog merci Bijou Sy xam nga nag ñun nous parlons de tout dans quelques minutes nañu waxtaan ak euh, Sidi Samb mu defal ñu honneur ñëw seet si ñu tey euh, pour ndekki ak ñun c'est vrai que bokk na ci artistes yi nga xamante ni on les voit très rarement euh, yi tant que amuñu actualité et c'est bien loolu mooy artiste warta late donte ay biram ñëpp ci war di jot tout le temps heureusement que c'est un artiste très professionnel ak carrière bu riche fi mu jaar diggante Sénégal ak Espagne ak lu ko jiitu artiste coach bi mu doon euh, ndax fa mu bokk euh, ci euh, famille yaayam di ndaanaan mu bokk itam ci famille yu artiste donc Sidi Samb dinañ waxtaan ak moom exidex dans quelques minutes daañu recevoir itam sunu beneen xarit boo xamante ni moom it bokk na ci jeunes yi nga xamante ni actuellement ñu ngi jël ay initiative muy waa Pic Art Events alors ñoom nag ñu ngi waajal ab cérémonie bu mag boo xamante ni dañ ci sargal di ay distinction yu ñu tuddee Pic Art Awards d'ailleurs ñaar ci sunu ay Euh, collègues la ñu fas yéene sargal ci bis boobule ak ñeneen euh, Pape Fada Ñing meilleur journaliste reporter Aba No Stress meilleur animateur radio euh, et télé donc Birahim Lay balaa ñuy waxtaan ak moom dañ leen di présenté waat keneen bi pa ci wàllu bien-être la ak Mado Malle ngi fi yaayu mama alors Malle tey da nga ñuy wonale tu vas nous présenter un styliste qui nous vient du Cameroun il s'appelle Iman Aïssi Iman Aïssi très connu par les Sénégalais parce que suñu réew ci fashion week yi nga xamante ne euh, la plupart kii di euh, Adama Paris da koy organiser euh, donc moom nag mu am benn privilège boo xamante ne dañ ko accepté ci benn cercle boo xamante ne qui est très restreint au niveau de la haute couture fee nga xamante ne ca Paris la donc jeudi bi passé ils ont fait la fashion week moom ñu introduire ko ci donc li ñuy def nag am na sunu ay confrères yoo xamante ne moo waa Africa News ils ont fait un reportage sur Iman Aïssi ñu bëggoon ko partager ak mbokku téléspectateurs yi Pape Cheikh Le créateur camerounais Imana Issi a l'honneur en France. Il entre dans l'histoire de la mode en devenant le premier créateur subsaharien à se présenter à la semaine de la haute couture à Paris. Le couturier camerounais bouscule aussi les stéréotypes, notamment ceux concernant les tissus africains. L'Afrique a ses propres euh, tissus que le monde entier doit connaître. C'est très important pour moi que je, euh, je puisse montrer mon travail, les tissus que je milite pour euh, le, le, vrai travail des tissus africains, de, les origines des vrais tissus africains aussi. L'Africaine elle-même, on va le célébrer parce que c'est important pour nous. Je pense que c'est une, euh, euh une page de la mode euh, qui est en train de s'écrire autrement. Iman Aïssi est arrivé en France dans les années 90 comme mannequin pour Dior, Lanvin ou Yves Saint Laurent. Autodidacte, il apprend les rudiments de la couture et lance sa marque, éponyme, en 2001. Tu peux pas dire que je suis que euh, un designer français que africain. Je crois que tous ces deux pays m'ont tellement enrichi, m'ont donné quelque chose d'exceptionnel, donc euh, que je vais à mon niveau de, de pouvoir euh, exprimer, exprimer, certaines choses avec euh, ce que j'ai pu euh, recevoir de ces deux cultures. enchaîne les défilés aux quatre coins du monde. La Fédération de la haute couture vient de l'accepter comme nouveau membre pour la Semaine de la mode de Paris. Une consécration pour lui comme pour l'Afrique. donc euh, euh, kooku mooy ay mm. euh, Aïssi un des plus anciens mm-hmm. créateurs stylistes yu Afrique oui ah. effectivement Bachir comme ni mu ko waxee donc nag li gën a taxoon ñu fësal ko rek mooy comme ni ñu ko doon waxee sànq d'habitude ça fait des années lu jëm ci wàllu défilé fee nga xamante ne moom moo di ca Paris surtout au niveau de la haute culture mosul am benn africain boo xamante ne jot na fa dugg moom il a été choisi au mois de novembre nañ ko ko yëgal nag après boobu ba léegi mu ko mu dugg si nag fierté te nee c'est une fierté pour lui parce que dafa bëggoon fësal ni que l'Afrique est debout donc de ce fait moom tamit la plupart matière yi muy utiliser mooy panafricain yi dem na sax bay xultu naan il faut qu'on arrête de dire que le vax te ñëpp xam nañ ni euh, vax quand même c'est pas un africain peut-être que dañ ko waaw dañ ko approprier suñu bopp mm, mm, mm. les africaines le portent plus souvent mais c'est pas du tout ça léegi nag moom day dem Euh, Cameroun ba ci fii Sénégal sax dafi ñëw di fi roote ay tissus yu bare lu mel ni rafia nga xamante ne euh, fekk nañ ko baax fële ca Côte d'Ivoire c'est très rugueux moom nag da koy travailler un tel point dafay tellement souple tellement raffiné ba nga xamante ne léegi dina mën bokk ci haute couture bi nga xamante ne moom moo di Paris boobu donc on a demandé aussi à des naka nañu def ba xool ni parce que ils ont vu que moom li muy def toujours dafay def ak finesse le fait de transformer ces euh, par exemple matériel yi ma wax léegi tellement rugueux ay raffia Diarra mu changé ko ba nga xamante ne c'est tellement fluide tellement chic mu joxe glamour te loolu nañu recherché la plupart ci wàllu couture fi nga xamante ne moom moo di pare rawatina la haute couture donc ñu jël ko mais li ma ci gën a marqué rek mooy li bijou wax donc comment ça se fait que ça fait autant d'années jamais un Africain n'a participé à au défilé ou bien au fashion week. c'est énervant Mado quelque part. parce que mm. dans tous les défilés haute euh, en tout cas calendrier officiel bi dañ naan on s'est inspiré de l'Afrique même Dior am na benn défilé bu mu def il s'est inspiré de l'Afrique tout le temps ñuy def Waxmania y a eu plein de trucs autour de l'Afrique et jamais on prend les Africains ci calendrier officiel mm. bu Fashion Week boo xamante ne ñiy défilé officiel ñoom Dior ñoom Givenchy ñoom Gucci tout le monde est dedans mais jamais de Africains c'est la mm-hmm. première fois c'est entre eux. c'était injuste parce que c'est pas comme si euh, africains yi amuñu talent bi wala mhm. amuñu jàng bi wala respecté wuñu base yi ak normes yi parce que fashion week il faut savoir que pour nga dugg si sa nombre de perles yi par exemple yi nga dugal si benn robe da nga leen di wax ñaata la. ban kii nga ko ñawee nombre de travail bi. et tout ça les africains dañ koy def remplir cahier de charge mais tout le temps euh, ay défilé off. à l'écart la ñuy am si en dehors de la Fashion Week et cette fois-ci on est tellement fiers de voir un Africain défiler si et puis euh, euh man j'ai bien ce qu'il a fait si défilé parce que dafa bëggoon génn tout ce qui est cliché bañ naan wax la indi wala lee la indi il a présenté une collection haute couture mhm. def si benn ci matières yi nga xamante ne c'est ses matières de prédilection pour leur montrer le talent qu'on a ouais. et il a dit qu'il était temps mhm. qu'on les Africains et juste de, de nous dire mhm. dañoo inspiré wu ci Afrique teg alors que africain yee ngi war a wane yàlla wi y' a plein d' autres stylistes venir parce que souvent dañoo obligé sax dem di def ay black fashion week yu kenn xamul pour seen talent mën a génn on dit chapeau bravo à Imane Aïssi on attend d'autres stylistes africains ci calendrier officiel Paris New York London mhm. partout dans le monde yi nga xamante ne moom mooy en fashion week puisque Jean-Paul Gaultier bàyyi na donc on aura quand même de la place pour les créateurs africains <laughs> euh, euh, euh, ñu ngi lay gërëm bu baax ci présentation ki nga xamante ni mooy Imane Aïssi qui vient souvent au Sénégal un très grand styliste boo ko déggee sa xel dem ci Alfadi boo ko déggee sa xel dem ci Oumoussi mhm. boo ko déggee sa xel dem ci yeneen créateurs yi xamante ni ràññee nañu leen fii ci continent bi donc cette année il a participé euh, li nga xamante ni mooy euh, Fashion Week euh, Afrique on a un petit problème technique qu'on souhaiterait régler tout de suite le micro de Mado ne fonctionne plus il paraît que technicien bi gisatul micro de Mado bi ah dafa suruxoon génne ko waaw parce que dégguñu la dafa suruxoon nee dégg ko donc loolu c'est un problème qu'il faut régler <laughs> ñu recevoir suñu premier invité exidex muy ki xamante ni mooy Birahim Lay Birahim ñu ngi lay nuyu euh, merci d'être là donc tey da nga ñëw pour présenter ñu euh, Pic Art Events euh, ngeen di amal ab cérémonie bu mag boo xamante ni Pic Art Awards ngeen ko tuddee muy am hôtel de ville bu Pikine le 8 février 2020 di ay awards yoo xamante ni da ngeen ko nar a joxe mais d'abord est-ce que mën nga ñu présenter tuuti Pic Art Events ak lan moo tax ngeen jóg pour sargal ay sénégalais. fii ñu toog yëpp ak téléspectateur u TFM yëpp quoi donc man Birahim Leye laa tudd maay manager général Picard Events mhm. donc Picard Events label d'événementiel la mhm. donc dañuy def événementiel marketing communication mhm. donc euh, ñi ngi résider nag à Pikine donc di liggéey pour euh, li conscientiser surtout la jeunesse pikinoise parce que boo xoolee Picard Awards li taxoon ñu initier ko objectif bi mooy ñu conscientiser jeunesse bi jox leen ay références wan leen ni leen il est possible que nga dëkk Pikine ba pare réussir. Mhm. il est possible nga dëkk boo dëkkee Pikine en fait du tere nga am ay ambition. absolument dañ la war a dégg fu nekk. Mhm. donc euh, comme dañu tàmm nag souvent di ñu étiqueter souvent ci biti. Mhm. banlieue bi jeunesse bi dañuy tux yàmba dañuy dem banditisme lu nekk lañuy ñuy wax. donc ñun on a envie que loolu changé mi ngi changé sax mais dañu bëgg mu gën a changé donc dañu bëgg nit ñi jeunesse bi xool ci ay référence xool ni ñii kat fii lañ juddoo fii lañ yaroo tey ñu ngi leen di dégg ci ci yeneen ci yeneen niveau d' alors lan ngeen prévoir ci li nga xamante ne mooy wàllu euh, organisation bi le jour euh, ban heure ngeen di démarrer lan mooy nekk contenu bi bis boobu comme ça ñi seetaan mën a préparé wu waaw dîner de gala la ñi ngi démarrer à partir de vingt et une donc euh, dina am ay autorités yu bari ak ay personnalités yu bari yoo xam ne dinañ fa teew. Mhm. donc euh, ñu ñëw ñu sargal ñi nga xam ni. Mhm. ci année 2019 bi ñoom lañ gis ne ñoo gën a ràññeeku ci domaine d'activité yu nekk. Mhm. art culture sport activité économique sociale y a aussi des distinctions honorifiques ak ay hommages yoo xam ni dinañ ko dinañ ko rendre ay personnalités yoo xam ni ñenn ñi nekkatuñ fi mais ñenn ñi dañoo nekkoon ci seen waar ba ndog ndog fekk leen ci donc ñu wone leen en référence waaw euh, si organisation bi toujours est-ce que actuellement euh, lépp yemb na pour que ngeen mën a dëgmal bés boobule at est-ce que tamit euh, ñi nga xamante ne tey ñoo seq Pikine jàpp nañ waaw mën nañu wax ni lépp yemb na à quatre-vingt-dix pour cent. lu des dix pour euh, cent yi ñañ kan la ak la lu xew. lu des wax ma. waaw waaw waaw bon wax ma lu des. dina dina dina mat on on sait que dina mat. nga jàppale bi moom souvent. Mm-hmm. benn instant mun na xaw a sooxe tuuti. Mm-hmm. mais quand même suñu autorités yi ñu ngi siy jàpp li ñu mën. fan ngeen koy defee. ñu ngi koy defee hôtel de ville de Pikine. hôtel de ville de Pikine waaw ci ah. salle de délibération bi d'accord alors donc je pense que ne mën nga joxe benn numéro téléphone. pour ñu oui mais euh, et ren itam euh, li ci am solo en plus de ñi ñuy sargal. am nañ ci ñun euh, ci ñun Pape Fada Ñing meilleur journaliste reporter Abano Stress. meilleur animateur radio et télé. donc ak yeneen i catégorie certainement yu am ci distinction yu ngeen di joxe incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. côté presse et communication. Mm-hmm. daaw ñu ngi distingué woon Younousa balde ah Younoussa ak euh, Théodore Semedo. ah voilà ah. donc ren aussi bi juri bi euh, xoolee dañu gis ne côté reportage euh, Pape Fara ngi lañ gën a ràññee. Mm-hmm. côté animation aussi Abba No mm-hmm. Stress lañ gën a ràññee. Mm-hmm. donc côté animation daaw ñu ngi joxoon Mor Gueye bu bu oxygène. Mm-hmm. ok donc ren alors si je comprends bien c' est des catégories yoo xamante ne dafay euh, euh, interpeller directement ñu nga xam dañuy jóge ci banlieue bi. effectivement oh ok d' comme ça mu gën a leer ci bopp ñëpp. voilà voilà mais euh, sinon mën nañu wax tamit ñeneen ñuy seetaan am nañu ci ay ressortissants yi nekk bitim réew. Mm-hmm. ñooñu tamit est ce que ci la ñu bokk ñoo xamante ne ñu ngi def ay jaloore ci bitim réew. ñoom ñoom ci la ñu bokk ñoom ci la ñu bokk donc peut être que édition kii bii di ñëw. ñëw euh, année prochaine dina am ñu ci bokk. mais Picard Events aussi nekkul label boo xam ne dafa yam rek Sénégal wala mu yam rek banlieue bi. déjà ñun dañuy explorer diaspora bi. Mm. d'ailleurs au mois d'avril pour ne pas faire de publicité au mois d'avril am nañu événement. Euh, en France à la jolie ñaata nit ngeen di sargalaat bu jot ren par exemple en dehors de Abano Stress ak. Euh, vingt personnes ak faram ñi ngi mu ñu xam ok. vingt personnes. lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu bu mujj rek mooy bëgg jeunesse banlieue bi en général ñu gëm seen bopp gëm ni tout est possible et rien n'est impossible daal lu ñu bëgg def rek suñu àdduna war nañ ko mën def. Hmm. ban heure la gars yi war a ñëw lañu war a teew. c'est gratuit ah. c'est gratuit c'est gratuit les tables sont gratuites. donc ah. euh, neen nañ dañu lekk daañu naan wala dañuy kii rek. Hmm. waaw dinañ lekk dinañ naan <laughs> dinañ xewlu dinañ <laughs> non dama koy cokkaase dama koy toj dama koy toj. arrêté la dama koy toj le le le le le 8 février. Mm-hmm. kon la ñu koy amal. Euh, hôtel de ville bu euh, Pikine. merci Birame mais bon tailleur yi daaw ñëwoon nañ. ah mais ren ren moom c'est vrai que amul amul. tailleur ngi ñaw lu kenn. waaw daaw moom daaw moom primé woon nañ benn benn moom. mais ren moom franchement. bëgg naa ngeen dugal ci tailleur yi nag chaque année nag. parce que banlieue bi tamit nañu wax dëgg <laughs> ci wàllu ñaw euh, ñu ngi. ñu ngi toj effectivement am na solo am na solo seen liggéey voilà merci en tout cas Birahim manager bu agence bi di euh, Pic Art donc cérémonie de remise de distinction bu ngeen di amal ngeen tuddee ko Pic Art euh, ay catégories Guèye euh, Abanos Xes meilleur animateur radio télé Pape Fana Nying meilleur reporter ak yeneen i euh, nit yu ñuy sargal donc ce sera pour le 8 euh, ci hôtel de ville bu Pikine merci en tout cas d'être passé nous voir donc ñun yii ñu bëgg ay jeunes yu jël ay initiative yu am solo et à chaque fois qu'il y a événement di recevoir gratuitement ñu waxtaane seen i programme ak seen événement permettre leen yéen ñii seetaan mën di bokk ci yooy les événements allez on va poursuivre ak seen ay semaine de mois quand même je suis en pour une semaine. Euh, <laughs> ñaata pour cent. je suis en solde de ah ah ay ñaar fukk junni daal laa jël sama ci li ma moom daal par ñaar fukk laay jël ku dugg euh, ñu may la 100000 déjà am na ku dugg léegi nii ba ñu jox ko beneen téléspectateur bu duggaatee léegi nii dañ koy jox fois euh, donc ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 88 628 04 05. en attendant ñuy amal tirage auto bi je rappelle que auto bi mooy guloloo bi nga xamante ni moom la ñu teg depuis décembre euh, ci euh, Teranga Sénégal te ku ne bëgg na ko donc bu ngeen bëggee gagné auto bi continuer d'appeler euh, mais nii moom y a pas de jeu on offre des enveloppes yoo xamante ni bu nekk def na cent mille francs donc ñu ngi leen di xaar dama leen di may tuuti délai le temps ngeen euh, composé je rappelle que je vous offre une semaine de moi je suis en solde euh, profitez-en avant que je ne retourne à mon chalet et du Mont Blanc li mu ci eh, gën a métti boo dee xëy dugal ay matam dugal ko ci cheminée bi di jaaru le froid de chez moi léegi gisoo la fin yow wuute na ak votre chaleur waaye votre poussière moom ça faisait longtemps dégg mu bruit yoo mais démb damaa ñëw rek. tëdd rek ñaari yow. ak donc j'ai réveillé ma femme je lui ai dit mais upp ma pour yooyu. Ah. parce que je suis pas je supporte plus votre bled. allez damaa nekk ci solde. fi mu ne damay soldé sama bopp ku dugg ma may la ñaar fukki junni pour une semaine durant tous les matins fii ba euh, euh, vendredi en attendant que je retourne à mon chalet allô. am naa xarit bu tudd Thialé. laa ko Thialé ah. <laughs> kookan la. Moustapha Dieng. Moustapha def fooy wootee Dieng. maa ngi wootee Pikine. yaa ngi dëkkuwaay la Boy Maroon Boy Maroon moo ko waxoon Pikine dëkkuwaay la fan ci nga dëkkee xuru naan wala Pikine daan. non Pikine Texaco. Ah, naka waa Texaco euh, euh, Dieng. jaay te ñu ngi fi waaw jaajëf waay naka suba si xanaa liggéeyi woo. si si damay nekk kaaru gond quoi damay gond. ah tey da ngay d'accord yow fooy liggéeyee. bon Sococim. ah Sococim looy liggéey Sococim ah war ngaa weextal. ok d'accord allez dis-moi Dieng. laa jàpp Birame Dieng wala Mara Dieng. Mara Dieng ah. Dieng Dieng Mara Dieng de. non wax Mara Dieng. <laughs> Moustapha Mara Dieng. Ah, ok Mara Dieng nga tudd. c'est bien ah là là je suis content oh Mara Dieng. non Dieng la quoi Dieng la jël. ah Dieng tombé mais xam xam nga Mara Dieng. waaw. Ah, waaw Mara bu Youssou. Ah, baax j'entends mal. j'entends mal d'accord augmente ton téléphone je peux rien si tu n'entends mal. moi j'habite pas ici je suis un immigré. débrouille-toi ak ton téléphone. si j'entends mal la. ma ne ko toi avec ton téléphone essaie de augmenter le volume. <laughs> man j'y peux rien si j'entends rien. africain oui. franchement. saraxule de Paris. madame servir mes enfants. c'est le parti te xale yi France ñoo dàqal rek déglu France seen papa yi seen yaay déglu. c'est massé c'est massé aujourd'hui dans le li ma naqar yëpp du ma ko. oui <laughs> euh, alors Dieng je t'offre naa la may naa la may naa la évidemment dama la bëggoon téye rek mais may naa la euh, quand même allo. bien yaa ngi yaa ngi ci ligne bi ba tey. <laughs> très bien d'accord yaa ngi yow yaa woote Pikine teg sa ko non. oui. bien. Ah. s'entend très mal ou bien. <laughs> santa bien wala santa mal. waaw maa ngi dégg maa ngi bien d'accord alors dis-moi nga ni nga ni nga ni nga ni parce que man damay fàtte. waaw. Moustapha Dieng ah. Moustapha Dieng waaw. bien Moustapha Dieng. yeewu leen may na la cent mille francs. s'entend très bien cent mille. très bien bravo les 100 000 sont très bien quand il s'agit de l'argent voilà c'est très bien tu es comme ma mère avec l'argent j'entends mais avec le problème dégg nga merci d'avoir appelé nga may sa nawle ci topp ñu mën a dugg ñoom itam mën a barkeelu ci sama solde bi ma nekkee pour une semaine en attendant que je retourne chez moi dans mon chalet euh, près du Mont Blanc profitez-en donc ku ci profité wul defe naa du baax ci yow puisque ku dugg euh, pour une euh, yoo xamante ne benn bu nekk nekk def na 100 000 francs donc composé benn ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi et exceptionnellement su ma paree léegi nii euh, ci télé bi même chose bi même période de solde bi dama koy yóbbu ci rajo bi maanaam à partir de 11 heures je serai encore en solde sur King FM ba 14 heures donc pour une semaine après je retourne C'est ma grand-mère <laughs> ma grand-mère. ngeen gis ku doon présentation mu yóbbu leen mission en Chine. ah, ah. ci dëkk bu ñu naan Wuhan. Ah. en fait dëkk bi moo tur bi njëkk a ñaaw moo tax ñu am affaire boobu coronavirus xam nga coronavirus Wuhan. nu dëkk ba tudd dina ma Wuhan damaa rek ba. dara waa Wuhan. baax na ma ngay sëkkat ma ngay oto bi. xuuxat alors xuuxaan c'est vrai que euh, euh, malheur moom comme on dit buñ duree jàmm ah, mais bon euh, yàlla nañu yàlla musal ci boobu le dëkk yu bëri actuellement ñu ngi jël seen ay matuwaay e que voilà Sénégal aussi mu ngi jël ay matuwaayam nécessaire mm. pour éviter virus baa ngi wér wala yi bëgg nañu rapatrier leen de mais c'est pas possible il paraît que problème de moyens ou pour rapatrier moyens yi mu laaj mais Pape Cheikh on est président bi démb bi ñuy wax def ak moom bi ñuy waxtaan ak moom ci 9 onse ci rajo ba ñoom ils sont 14. en tout et pour tout ci beneen wàll Maroc qui rapatrie plus de personnes franchement pour man waroon nañ mën jël les dispositions pour rapatrier bon, on maîtrise pas man man je maîtrise pas et quand je maîtrise pas je donne ma langue en tout cas ñii nga xamante ni ñooy ay sénégalais ay doomu Sénégal yu nekk Chine moo xam dëkk bi euh, ame euh, Wuhan euh, xom Wuhan ou sénégalais yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di xalaat parce que Chine dëkk la boo xamante xamante ni quand même dafa bëri ay euh, doomu Sénégal wala waa Sénégal euh, yu fay faral di dem di euh, commerce donc paraît-il daal am na ay étudiants yu fa nekk donc on leur souhaite ñu ngi leen di xalaat en tout cas yàlla yàlla musal leen. allez profitez-en maa ngi leen di xaar li lépp jugu enveloppe la loxo ñaar fukki junni laay def tey su ma paree léegi nii 11h. ci télé bi je serai euh, en direct ak yéen ci rajo bi King FM 99.4 ba 14h. et je serai toujours en solde ki ñu fekk si nag tey suñu euh, xarit la c'est un très grand artiste artiste la boo xamante ni kenn dootul werante euh, ndaanaan bi mu doon si décembre déjà qui a signé ak label bi di New African Production ak suñu xarit Birane Sarr nga xamee ni yàgg na jàppale artiste sénégalais Youssou Ndour Pape Diouf si décembre mi doog signé ak moom beaucoup d'événements qui se avec l'artiste ak bu bees bu mu nar a génnee clip bu bees euh, mu ñëw di ñu ko présenté tey donc autant d'infos yoo xamante ni mu ngi jëm Exidex ci. voilà euh, Sidi Samb mi nga ni tey fii lay ndekkee ci télévision Futurs Médias. exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek euh, xam naa ne dinañu ñëw ak moom ci ay question yoo xamante ni gëj nañu ko gis et puis ñu ngi dégg temps yi son retour ah dans la musique mu liggéey fi nag loo xamante ne dootul fay parce que je pense que ne bi mu tàmbalee way ba léegi li ñu gën a neex ci moom ci wàllu way mooy constance loolu nag. moom am na ko fexe na. yaru na mën na way mën na way mën na sañse. waaw mm-hmm. waaw yooyu ndax sañse bi tamit nag. yaru na am andi na ko ci biir. déglul li ma la wax eh, déglul balaa may dellu. day sàmm damay delluwaat dans une semaine. dama ne yaru na mën na way mën na sañse loolu dëgg la. loolu jëwam on demande pas plus. loolu loolu jëwam chez chez un artiste. loolu loolu jëwam. te loolu tey bokk na ci ñu ko andi ci biir musique ci veste yi yi ah voilà look bi nga xamante ne tey xëy na dafa sooxe woon ci biir musique bi bi mu ñëwee on a il a vraiment changé ndax ñun euh, suñu xeetu yëre la ñu amoon ay ay ay ay ñaari ñaari xob la doon sol. wala ay drap wala chemise sànq si mënuñu sañse Youssou Ndour Baba Maal Thione Seck <laughs> ah. loolu nga bëgg a foofu ñoom Sidi ñoo ñëw révolutionné sañse yow mën nga tooñ de Youssou de yenn saa yi bu braay ba takk seen turam boobu def guitare bi <laughs> damay bëgg woo Aïda àggali ne ko xanaa gisoo waa bi. d'accord léegi mais am na am na benn vidéo boo xamante ne am ne euh, mi mbokk mi bi donc mu nekk benn vidéo boo xamante ne dinañ ci ñëw moom laay tëjee Pape Cheikh si tu le permets. donc muy waaw waaw euh, benn vidéo boo xamante ne moom la ñuy tëjee donc muy artiste bu ñu présenté woon sànq donc muy euh, mbokk mi pii donc moom naa dafa def benn vidéo tuddee ko injustice muy yëngu ci wàllu reggae mais rek ñu ñëw ci actualité voilà ci li nga xamante ne moom mooy Sidi alors Sidi Euh, gis nañu euh, depuis euh, depuis quelque temps quasiment tu es absent de la scène et puis Sénégal gars yi gisatuñ la fi très rarement lan moo waral loon nga téye sa bopp. business. Ah. waaw maa ngi ginnaaw bi la door di nuyu ñi ni seetaan ñëpp vraiment di leen nuyu yéen di jaajëfal ci invitation bi mhm. euh, di kontaan ci ñi ni déglu et tout et voilà mais li may faral di wax tout le temps rek euh, absence euh, mën nañu wax absence nationale. mais mm. Sidi Samb est toujours actif ci domaine culturel bi. Mm. Euh, dañuy bàyyi xel rek dama koy faral di wax tout le temps dama nekk ci ñaari carrière di ko def benn bi mooy international bi. Mm. léeg-léeg doo mën a defandoo ñaari à fois donc fokk nga standby benn pour beneen bi mën a rouler. Mm-hmm. noonu lay dérouler moo tax léeg-léeg ñu may gëj gis si fii mais suñ ma gisul fii rek xam na ni maa ngi xarmat ci beneen wàll. Mm-hmm. wàll bi mooy comme un musique sénégalaise donc présenté sama dëkk. Mhm. alors euh, actuellement gis nañu ni yaa ngi ci euh, yaa ngi liggéey euh, ci album foo ci tollu. waaw maa ngi ci album international bi bu buy tudd Dem Dikk. Dem Dikk Dem Dikk la tudd ku ma xam rek xam ni. dem Dem ak Dikk daal Dem Dikk laa nekk wax. ci bu mu jotee. Mhm. jëf ci bu mu jotee. Mhm. noonu laay faral di doxee parce que carrière laay def. damay faral di wax tout le temps Sidi Samba. Euh, du artiste boo xam ne dafay xew. Mm-hmm. Euh, ñaanuma yàlla xew quand même. damay ñaan yàlla di fi nekk tout le temps parce que mm-hmm. dafa bokk ci sama carrière. te sama mm-hmm. carrière sama giirug dund la. donc da ngay teg ay pion di teg ay pion. tu fais tes albums di ngay monter say projet di dem di dem di dem di yow. c'est comme ça. alors ñu gis ne à chaque fois style yu bees c'est-à-dire que. flamenco bi moom. Euh, defe naa <laughs> bokk nga ci euh, da nga ko téye euh, ci biir album bii nga xamante ne yaa ngi koy préparé yan sonorité bi pas la ñu bëgg la ñu nar a dégg est-ce que ça va être d'autres univers. waaw bien sûr euh, album international bii nii euh, bii weesu c'était Suno donc ay mélange ci biir Afrique donc je chantais en lingala en bambara en alpulaar et tout bii nii c'est juste defe naa présenté noonu ko fii ci ci show euh, ak Pape Pape Cheikh présenté noonu ko fii bi mu yoroon donc bii nii flamenco la mais cette fois-ci du musique flamenco bu nu mélanger avec la musique africaine mm. bii pas musique africaine la bu nu mélanger avec le flamenco sonorité bi mooy africaine base bi africaine. ok mélange ak euh, sonorité euh, flamenco. donc moom ay artistes euh, flamenco yu mag yu ci bokk. ku mel ne Raimundo Amador Tomasito Jorge Pardo Dino Di Girardo ñoo xam ne ràññee na leen ci fànn woow mm-hmm. donc lool mooy album international bi. beneen bi nag mooy bi nga xam ne moom laa nekk di présenté mu nekk Naxooma mu nekk album live. Euh, moom laa war a présenter incha allah le 8 fii. Mhm. donc mu nekk albumu 10 titres. Mhm. mu nekk euh, album boo xam ne aussi sama fans yi ak sama soppee ñoom ñoo ko sélectionné mu doon morceau yi gën a yéen a gën a marqué ci sama carrière ma jël leen ko jël leen ko tëggal leen ko en live. waaw loolu loolu laa doon bëgg laaj ba xam yaa ngi dégg le cri du cœur de tes fans. gars yi dañ lay namm dañuy bëgg jàkkaarloo ko yow est que yaa ngi dégg euh, message bien sûr bien sûr parce que dañuy am contact euh, tous les jours xam nga léegi ak internet bi waaw yaa ngi am contact say say soppe say am di jàmb ñii dañ lay encouragé ñii dañ lay suivre aussi ci leneen leneen li ngay def même su fekkee du mbalax mm-hmm. donc dañ lay suivre ci yeneen activités yi ngay nekk donc loolu aussi dañ leen ci jaajëfal pense que les téléspectateurs man leneen may ñu seetaan benn ah, ñu ñu ñu dellu siwaat gën a waxtaan me valía album fii ci Villa Cristal la ñuy amalee euh, lancement bi 6 euh, décembre en plus de cela nga signé ak euh, label bu mag boo xamante ne ak sénégalais yu bëri wala africain dañuy rêver pour liggéey ak ñoom muy New African Production loolu itam muy lu bees lu tegu ci sa carrière si. mën naa wax ni que sama collaboration ak New Africa Production c'était en ça, ça fait ans. Mm-hmm. mais léegi la yàlla dogal liggéey bi démarré. Mm-hmm. parce que dañu nekkoon ci yeneen activités yi tout cela. Mm-hmm. léegi yàlla def ñu démarré. lii tax ma gën ci dugg nag c'est professionnalisme bi ci nekk. waaw parce que carrière dafa am dafa am solo donc booy dugg ak wala ngay collaborer kenn dafa war a nekk lu professionnel. Mhm. donc euh, loolu am na ci No Africa Production njiit gi nekk Transat nekk sénégalais boo xam ne aussi mhm. day fighting fële ci États-Unis nekk di bay waaram ci ci biir américain yi ci di ko teg ci yoon. loolu mhm. loolu weesoo ma signé ak beneen label boo xam ni Londres la nekk aussi mu nekk Live Music Agency donc ñoom ñuy def booking. ci biir agence boobu y'a Manu Dibango y'a Salif Kayte qui est dedans donc ñoom aussi ñu gérer carré boobu wàllu wàllu wàllu tournée yeeg wàllu tournée yeeg voilà tout ça alors euh, le 8 incha allah nga bëgg a euh, génne euh, sa album Sénégal tey album bi mën nañu bii moom mooy album national bi la waaw bii mooy album national mbalax pur et dur sap sap ah. ngéwël la woon fa woon la woon fa woon <laughs> mais nag lii nag album la boo xam duñ ko jaay waaw euh, pour que ah, ma wax ko pour ñu xam ko album la bu ñuy offrir ñi nga xam ne ñoom ñooy sama soppee sama am di jàmm ñi nga xam ne ñoo ma naxul waaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak man ba tey waaw donc album bii dañ leen koy offrir ñii dañ leen koy am hmm, affaire yaa ngi bëgg a yàgg parce que euh, je me rappelle bi ngay doog a jóge Espagne pour ñëw Sénégal euh, yombuloon commencé nga déjà sa carrière Espagne dëkk ba xam la ngay continuer mais da nga jékki-jékki rek ne carrière bi doo ko yemale rek ci dëkku tubaab bi il faut nga ñëw bokk ko ak ak ak ak sénégalais yi. waaw au début yomboon na parce que ci yow laa dal moo tax mu yomboon. <laughs> moom mooy premier animateur bi njëkk a teg sama sama sama musique. c'était ay vers ah. minuit yooyu presque muy muy waajee terminé. Ah. te fële Dakar FM tam xaw ma ndax fàttaliku ko ma ñëw wàcc rek ñëw ni ko saa yi foog nga teg lii parce que lii mooy sama carte de présentation askan wi. ndeysaan ngeewal ngeewal ngeewal moom. teg ko i voilà mu nekk euh, lu Sénégalais yi bëgg yow tamit maa ngi remercier ci loolu. yi mm. duñ ko fàtte parce que ndorteel c'est très important. Mm. dañ naan wax rek bon benn moodu moodu la bu ñëw rek bon afro karaw gi mais day jeex. <laughs> parce que temps boobu liñ ci doon gis. bëri day jékki-jékki rek gis ab Modou bu defi caq def ceen def def def daal di afroi xaw a jiw tuuti voilà mais di naan ba ay eh waay ay eh waay géwal tubaab bi ñu naan ay géwal tubaab bi <laughs> ba leen boobu léegi fi il y a eu beaucoup de collaboration Youssou Ndour entre autres ak yeneen artistes sénégalais waaw Youssou moom mention spéciale parce que euh, moom dafa bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo tax ma gën a imposer de sama carrière nationale. Mhm. parce que dama daan fekk Espagne. Mhm. Euh, je me souviens c'était Malaga bi ma koy njëkk a jox sama maquette. ba mbalax. Mhm. mu jël ko déglu ko bi ma gisaatee dafa ni ma foog nga ñibbisee. Ah. foog nga ñëw Sénégal def fa. moom ñibbisi ma ñëw bi ma ñëwee sama premier album moom moo ko moo ko distribué c'était en Jololi. Euh, sama deuxième album chose bi may def album bi sama morceau bi ma njëkk def dafa bàyyi léppam loolu moo ko mu weeru koor loolu fekk moo fi sax dérange ñëw studio way morceau bi mooy daan sa doole ñu way ko mu way ko way ko ak xool Euh, vraiment mention spéciale. Mhm. may def sama première présentation à Sorano mu ñëw booba c'était difficile parce que kenn daaw ko filmer mhm. mu ñëw bàyyi lépp parce ak ñeneen ñëw taxaw ma ci loolu ama mhm. loolu aussi. dañ lay ñaanal rek fanu gudd ak wér. parce que nit du fëkk jëf quoi. il faut que il faut ñun être reconnaissant te xam ne aussi. ñoom ñoo ñu xaalal yoon wi. Ah, ay exemple lañ ci fànn yëpp noonu. donc ñooñu dañu war di topp seen gannaaw di leen bi yu leen ñaanal fanu gudd ak wér. waaw kooku moom sama partenaire la. <laughs> kooku sama xarit la. sama yaay la sama xarit la donc mu nekk sama complice en même temps. ndax artiste bi mu doon. waaw artiste waaw artistiquement waaw ci artiste bi waaw sama complice complice la musicalement parce que lu may def. dana ci dana dana ko xool gëstu ko lu may génne dana xool ma wayal lii wayal lii wax lii waxal lii ci benn complicité entre entre deux artistes. wala wax sax entre yaay ak ñu bëri xamuñu ni sax def ngeen duo yéen ñaar. waaw def nañ duo defati ko donc daan samay tournée national da daan ñëw di participer yi donc mais ba pare dafa bu garaaw. musique bokk na ci ñu njëkk a ci euh, bu dul ku njëkk a woy musique moderne ah. ci ci mbalax bi euh, moderne donc euh, yaayam ci la ci la moom ci la bokk alors loolu di di héritage nag moom benn capital boo xamante ne xam na ko di ko valoriser tut le temps à travers ses parce que da nga ko ciy dégg ci wàllu ouverture bi mu am si xeetu musique muy flamenco ak yeneen musique yi nga xamante ne mi ngi koy koy jéem a créer parce que loolu tamit dafa baax ni euh, bu ñu ñëw tamit euh, ci 2020 bu ñu génnee album bi certainement euh, di nga am ay yeneen projet yoo xamante ni yaa ngi koy waajal mu ay guddi yoo xamante ne walla ay tàkkusaan comme ni nga ko tàmbalee fan si waaw bien sûr bien en dehors de de de le huit bi présentation bi am nañ ay yeneen activités yoo xam ñu ngi koy préparé. Mm-hmm. y a ko daan aussi. Mm-hmm. ñu ngi préparé di def euh, di préparé festival boo xam ñu koy waaj taxawal mu nekk festivalu euh, afro flamenco boo xam bëgg nañ ko def ak mm-hmm. échange culturel yi. cette fois ci dana ay workshop. muy festival flamenco koy waajal buñ ci àggee incha allah ñëw gis gisanteeg waa télé bi aussi ñu nekk ci ànd ak ñun aussi d'intérêt culturel là et tout ça là en dehors de ça dana am ay échange culturel dana aussi en même temps. parce que bah, que Mado déjà. Euh, voilà c'est ce que ni ma lay déglu sànq ba tey yaa activité c'est vrai que la gis voilà <laughs> déjà par rapport à ta et un sport bien sculpté macha allah donc est-ce que da ngay évoluer ci wàllu mannequinat en même temps ak waru euh, maanaam style yi tout le temps yi ngay choisir. par rapport ak waaw xam nga mode dafa bokk ci sama plan de carrière. Mm. loolu loolu da ci bokk tout le temps donc euh, foo may fu ma defee musique dama ci sóoraale euh, euh, mode bi quoi style bi. Mm. donc moo tax ci biir afro flamenco bi am na ci ay benn collection bu tudd Teranga. Mm. Teranga project la tudd donc day am ay ay ay défilé de mode ci li ñu leen wax sànq ay wax. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, ay seru rabay tout cela ñu ñëw ci tenue flamenco. Mm-hmm. comme ñoom ni koy solee donc loolu def ñoo koy ñëw waa wala ay sénégalais ay ay sénégalais la ay sénégalais la ay jeunes créateurs yoo xam ne ñi ci dëkk bi mën a ñëw macha allah ñoo xam ne ngi ci banlieue bi donc ñoom it ñu war a seen seen ci domaine boobu. Hmm. loolu nekk na waaye loolu nekk na la aussi euh, lu ñu lu ñu mais incha allah le huit donc ce sera euh, foofu ci Villa euh, Cristal nit ñi ñëw en même temps est-ce que day amaale séance. Euh, d'écoute boo xamante ne day am à travers une musique live boo xam da ngay jouer yenn morceaux. waaw séance d'écoute bi day nekk live bu saf saf pure dure xam nga comme li may faral di wax rek dama dama bokk ci dama judd ci ngéwal yaroo ci ngéwal màgge ci ngéwal donc en dehors de que bu ma fekkee dama jégaani euh, tout ce qui est les harmonies jàng tout ce qui est mélodie tout cela am na loo xam ne da ciy des toujours. dafay nekk ci deret bi mooy ngéwal bi donc jour boobu incha allah dana gis si sa am ci beneen facette. a ñëw rek comme li may faral di wax

yeewu leen bi mais mën nañ cee profité jëlaat leen ci téléphone yi puisque ku dugg euh, ñu jox la enveloppe bu tollu ci 100000 euh, on a quand même quelques affiches euh, yu ñu leen bëgg a wan Pape et Cheikh ñu ngi jëm alkimia suma juumul le 5 5 février voilà 5 février di nga dem ah. en ah, suba février en plus. waaw affiche bi ah. ka organiser mooy dëmm. ki organisé ab jinne la soo xamante ni soo xamante ni si de kenn mësul gis loolu <laughs> Mariam Silla donc elle doit euh, euh, lancer euh, sa boîte donc MS Events donc entrée 35000 dina am entrée dina am tamit dîner ak plaque dessert exactement ah, yooyu defe naa dina lay intéressé <laughs> di dîner la entrée plat de résistance plus dessert moi j'aime pas tout ça j'aime pas les entrées j'aime pas les desserts résistance rek plat de résistance rek waaw man na tàng rek na tàng rek te consistant donc ce sera pour demain euh, un événement boo xamante Pape et que nous admirons ñoom euh, ay ndaanaan la ñu Pape muy Cheikh euh, donc dinañu tëgg fi nga xamante ni moo di Alkimia demain 5 euh, février et puis Viviane qui hmm. prépare la sortie de son album le 8 d'ailleurs jour boobu Vividé la ñu ko tuddee exactement donc hmm. moom it le 8 donc mu nekk une date boo xamante ne c'est pas choisi par hasard hein donc lu mu dafa bari hmm. mais gis nañ ni moom it choisir pour génne bis boobu tuddee ko Vivi Day ah sa belle tenue donc de 10 heures à 20 am na photo série dédicace et tout ça là. Euh, te album bi moo ngi ko tuddee beneen level. beneen hmm. level ah. mais for naa ci weewu bay sax euh, que album bi defe naa ne danañu gis beneen Viviane bu bees. Ah, ndax xeet ndax mu ne beneen level d'accord beneen ndax ni mu yeneen nu mu wayee euh, gis nañu ko bi mu commencé carrière am gis nañu bi mu gisee carrière am. Hmm. nu mu ni mu commencé temps yi hmm. dafa mel ni euh, dafa nekk di liggéey ci beneen registre loolu tamit vraiment dañuy li saluer liggéey boobule. ah vraiment gis nañu ko donc muy afro bi ah, même mbalax bi sax da ngay gis euh, nu mu koy jéem a accélérer tuuti yokk ci ay quelques affaires toujours pour changer nopp yi. Mm. c'est très bien moom it sa façon de chanter. Ah. a changé. Mm. donc loolu moom. et puis gën di dem di gën di rafet quoi. exactement macha allah et s'entretient xam nga musique dafay maintenir nit. rare ngay gis tey boo gisee Salif Keita bu loxee âge am doo ko du màgget il a 72 de vie. Ah, il a artiste du màgget artiste du retraité waaw artiste du retraité du màgget du màgget ndax dégg mi ngi lay may kàttan et puis tant ngi def passion sax xool da ngay way et a bàyyi sax ah. dëgg du màgget déedéet du màgget du màgget ndax voilà exactement cofeel bi ñoom li ñuy vivre mhm. xam nga émotion daf lay téye mhm. dafay am créé yu muy def ci yaram et mhm. tout ça du ñu stressé peut-être que poids de stress yu ñu am rek mooy peut-être bu ñu organisé mais une fois qu'ils sont sur scène. Johnny Hallyday par exemple dafa woy ba dee. Euh, euh, Céline Dion elle euh, vieillit. mais elle chante toujours bien. Charles Aznavour Youssou Ndour. yàlla di defar asamaan daanaka moom la décor séo bi. ah bon moo téye Youssou Ndour ah. moo téye woon séo bi yàlla di càpp di pertur ba la keneen. bleu de ciel ah et regarde ba mu ngi woy macha allah Kiné Lam par exemple c'est une vieille mm. Kiné Lam la mm. euh, mais tey ba léegi bu la woyeelee rek sa xol dafay sedd d'ailleurs à propos à propos de Kiné Lam comme man damaa bëgg ay yëfam mm. xam ngeen ni premier première édition euh, le grand show bu Youssou Ndour ak Super Étoile xam nga Youssou Ndour la ñu jël grand show alors moi je promets deuxième numéro grand show non seulement je ferai cette émission mais j'inviterai Kiné nous sommes fiers de toi. ah kon woo na waale samay ndàll. en attendant <laughs> mon retour. nga war a waale ndàll yi. offert par mon grand frère. la kooku yaa wéyli la. non bien sûr. ñooñu boo tëral ba ba fajar nga yee leen. bu nee der nga ni waa. gis nga France ah, ñun Sénégal lu ñu am bu ko France amoon ah. dañuy daw. États-Unis bu Cameroun dañuy daw. mais ñun dañu gaaw a rey artiste. boo amee 40 ans 50 ans rek si fini amatoo roi way. war nga war a bàyyi way di nga nangu tamit jamono bu ak ci. mais nag xamuñu ni. ci ambiance xaw ambiance. mais xanaa xam ne les vieilles marmites moom mooy def moom bu malaal yooyu xew. waaw gis nga gis nga gis nga Pape baat baat ñoom xam nañu waykat yi. plus nga màgget plus sa baat di neex. ah oui plus ngay màgget plus sa baat di am charme. ndax boo nekkee xale day am euh, ça manque de volume. xam nga mais boo ngay màgg grain bi ñëw. Mm-hmm. ak yenn technique yi utiliser mm-hmm. mais c'est magnifique donc on a de très grands artistes. voilà on a de très yoo xamante ne tey war nañoo dellu si ñuy ñuy bégal xale yi di way. Mm. ndax xale mooy changé. Mm. mais at xam-xamu mag. voilà beneen affiche bi ñu am euh, mooy euh, Sanex mi nga xamante ni dafa dem ba États-Unis jouer ci benn film alors. alors euh, euh, lancement au film bi Atlanta la ñu koy amalee. le 15 février. Atlanta Jojo foofu la ñu koy amalee donc <laughs> actuellement sénégalais yi nekk États-Unis yëpp ñu ngi koy préparé puisque ticket yi disponible na et tout ça donc le 15 euh, télévision Futur Média dina fa nekk moi je serai de la partie Saner ak comédiens yi nekk Sénégal yëpp ñoom tamit dinañu nekk fi nga xamante ni moo di Atlanta le 15 donc affiche baa ngi noonu dina am tapis rouge boo xamante ni dinañ leen won sañse yi ak. tout ça donc c'est un très euh, euh c'est une très belle production réalisée du Sénégal donc je une semaine avec vous et puis je pars aux États-Unis euh, pour euh, accompagner ces jeunes artistes loolu rek laa leen dese léegi mag laa man je pense qu'on peut en profiter tonton Mag puisque quelques minutes moo ñu dese laataa ñu leen di bàyyeeg Eva Tra Mami Diop ak Ndoye pour Wareef ñu tegal jàngal leen en tout tout petit extrait euh, de ce euh, de ce film euh, nga xam ni acteur bi di Sanex Cheikhou États-Unis mu ngi koy xaar le 15 février ci dëkk bu ñu naan Allah na joojo. fii nga nekk wala Sénégal bu nu waxee rek ngeen ne Sénégal Sénégal lu ngeen liggéey yëpp ngeen yóbbu ko foofu mais loolu ba kañ kañ ngay xappi na sax sa soxna. boo ko mayee papers na nga ñàkk sa jëkkër. ndax bu naan cëpp Sénégal du la takkal wujj <laughs> wujj yii réew ma kay waxatuma fa dara fi toll nii kay fii fii wax man. waaye Ibrahima la ngay wax nii. sa doxaan. eh what gis nga duma sa morom de yow. waa kii man rab yow. what do you mean get the I'm dead ass serious. Get the fuck out my house. What donc lancement wu film bi ce sera pour le 15 incha allah ca fi nga xamante ni mooy euh, États-Unis Sanér que nous félicitons encore parce que c'est un très grand acteur moom Cheikhou. exactement et bu bu mag la un très grand artiste. di ko ñaanal aujourd'hui euh, foofu mu nekk ci États-Unis pourquoi pas mën na dem plus loin parce que dañuy soxla genre visage yi. Hmm. le talent talent kese la mu Hollywood euh, talent rek la moo fa ne amul leen y a pas de magie donc c'est des gens yoo xam ne da leen fort ci mbedd bi. yóbbu leen jox leen seen chance ñu ñu explosé koo ci mënti tudd si ñoom ñëpp ku la waxee fu leen jëlee tey tu verras que ne Sanex euh, ci même euh, kii yëpp principe yooyu la nekk. Mm-hmm. et que voilà on lui souhaite bon vent et que ça ça a été une très très très belle euh, production de qualité. mu ngoog donc loolu en attendant mu yegg si dinañ leen ko di fàttali puisque ca États-Unis la ñu koy amalee dëkk bu ñu naan Atlanta le 15 février et puis on finit ak vidéo bi nga ñu bëgg présenter. exactement rapidement laata ñuy tàggatoo. voilà dañ ciy jël benn extrait rek donc muy euh, mbokk mi euh, donc comme ni ma ko waxee woon sànq on va juste regarder un extrait donc de la vidéo comme ça ñu xam li euh, préparé surtout. mu la envoyé parce que sinon Exidex va nous frapper. te man bëgguma mu dégénérer je je ne vous offre que qu'une semaine de moi je veux pas de problème je veux pas d'histoire je suis venu avec un drapeau blanc. Mm. vous comprenez en drapeau blanc <laughs> voilà donc euh, euh, ñu ngi koy euh, waaj a teg très rapidement bokkul ak bii bii ñu leen tegal léegi nii Exidex dinañu ko présenter dans la semaine mais tey tu nous parlais plutôt de Pi c'est ça voilà voilà donc mbokk bi Pi donc mooy nekk un sénégalais qui fait aujourd'hui du mu nekk benn style musique boo xamante ne Sénégal yàgg fi lool hmm. mais que voilà mi ngi sooxee parce que peut-être que yeneen musique yi ñoo leen ëpp doole mais ça reste une vraie vraie vraie benn vidéo boo xamante ne ci def benn cri de cœur muy injustice euh, tourné ko d'une euh, manière euh, très propre gis nañu message yi rien que les images parlent boo leen ko seetaanee vous avez pas besoin peut-être d'aller dans le fond mais boo leen gisee image yi di ngeen xam li ma li ma ci jublu parfois il y a des messages codés au-delà même de la parole li artiste bi di way loo xamante ne mooy tableau yu nekk ci ginnaaw kii ñoom ñooy porter yenn le deuxième message euh, subjectif donc yooyu day am solo ci biir vidéo tamit da koy gis euh, comme les américains le font euh, dañuy jël ay pas de danse yoo xamante ne dañ koy mettre en avant mais li ëpp ci video bi message codé mooy nekk ci ginnaaw loo xamante ne ça peut être un symbole ça peut être benn benn affiche wala dara loolu moom mooy benn deuxième message bi wax ak les initiés comme on les appelle mooy ñi nga xamante ne xam nañu euh, le deuxième message que la personne veut dire boo xamante ne mënu ko wax ci kaw mais à travers euh, le ce, message la moi je comprendrai les gens réfléchis comprendront donc dafa am solo moo taxoon ma andi woon vidéo boobu pour euh, wane rek que ne vidéo voilà exactement <laughs> talk about Lion, the lion, the lion, the lion, the lion, the lion, the lion. la bii les ayandoo la yàgg nañ fi jaay dëgg la bii les ayandoo la yàgg nañ fi jaar dëgg la bii les ayandoo la yàgg nañ fi jaay dëgg la bii les ayandoo la yàgg nañ fi jaar xool ko si réew yi bari doole ñu ngi fi néew doole way bi en fait dafa nii we daal a somnolent daal boom, boom, boom, boom, boom. Giants to fire. Fire bomb, man. ak ah, way eh, bu neex la de en tout cas. non mais xam nga reggae. Eh. reggae vibe la. sa xarit la rek. non non non du loolu du loolu du loolu. Euh, bëgguñoo dóor ci clip. non non non lii la. waaye di def dégg maam bi. parce que ñu tuusee leen ay tëdd. waaw gis nga animateurs yi bu ñu xaritoo ko waykat c'est-à-dire munoo Moussa Ka boo aadee ba waykat ba niil nii laa mel ci ay mbenn jaata mel ko ci Fatou Guewel mel ko ci Kinde Laab yow nii nga mel ci ñi. di prévenir la nee na la les avertis. def ñu ko imposé waa ñu faay ak yére yi leen toussé faayo bii ne maa ne. bëgg ñoo doon ci suñu ba léegi. maa ngi doon loolu faaro faaya maa la indi boolu faaro faaya yéen animateurs yi jaaxal ngeen ma. Eh, damay liggéey bàyyi leen ma ma pare ak sama sago commencé ci sama oto bi ngeen bëgg a taal pour lan la ay bomb laa dugal di dul man boo ko dawalee da ngay tàkk soye maale inde foole inde baale <laughs> il est cuit c'est c'est c'est comment il s'appelle non mais Pape Cheikh vraiment yow dama doon tuur. barke yàlla ex daf ñoo bëggoon dóor yow est ce que mën nga maa bàyyi dama nekk en direct ex daf ñoo bëggoon dóor a clip bi. tonton nag juum na teg keneen mais ex a failli nous frapper. Mm. non mais jàlloon na quand on lui a demandé de mettre la chanson qu' est ce qu' on voit. faaya maana. dama bon d' accord. mais il est fort. les avertis comprendront. ñu bàyyi la nga tàggatoo xam li ma gën a métti mooy li ma gën a métti mooy li ma gën a métti mooy. aga ki nu fee. fireman in the pale. ak yére yi ñu leen touché. <laughs> ex-tàggatoo <laughs> jeex na émission bi jeex na. Euh, euh, ci teg daal boo demee YouTube en tout cas di ngeen. waaw mën a seetaan vidéo bi. on ira et vous allez voir peut-être que. yéen li ngeen ci jot a seetaan li ngeen ci jot a seetaan euh, extrait la bu ndaw mais boo leen demee vous allez voir que y a des messages forts non musique reggae. musique message la. oui loolu il faut nit ñi xam ko y a toutes les voix dans la musique reggae am na ci ñoo xamante ne quasiment doo benn yoon la ñuy wax deux mots. dootuñu waxati. tu vois ay musique reggae mooy musique boo xamante ne moom leen Sénégal. bilaa walaay. les avertis vont comprendre. non non non au-delà de ça dañuy déglu émission reggae bi am RFM. waaw. Mhm. waaw kooku na Ndero moo koy def moom ci frère waaw. léegi loo bëgg wax foofu. dara def ñoo ne. non dama la bëgg xamal ne rek. musique reggae intéressé nañu. waaw non musique yàgg na yàgg nañu intéressé. yàgg musique reggae yàgg voilà mais en tout cas c'est un très beau titre que vous découvrir sur euh, exactement YouTube. donc mën nañu ko euh, seetaan donc sur euh, a seetaan incha allah. voilà donc fi la ñuy jaaree jeexal yeewu leen wi on va se quitter ak anniversaire yu tey yi du ñu a lim yëpp mais bokk na ci anniversaire u Eva Tra tey la anniversaire am donc tous tes collègues yu nekk fii ci groupe Futur Média ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Eva que vous retrouverez dans quelques minutes yaay Rokhaya yaayu Basiru sama doom euh, kor imam ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér euh, donc Eva Tra happy birthday to you euh, dem ba dëkk bu ñu naan France di fa nuyu waa kër Adja mère Ndeye Thionni Diop Adja Dieng Astou Sow yaayu Bambek Moustapha ca Épinay on t'embrasse très fort di nuyu tamit suma rakk Serigne Modou ñu ngi koy bégee bu baax moom ak yaayam ak toute la famille donc Serigne Modou ñu ngi lay bégee nuyul ñu maman Ndeye Mboup di ko ziar Yacine animatrice fii ci télévision embrasse elle nous di nuyu euh, sunu yeneen xarit yoo xamante ni ñu ngi àndandoo ak ñun Kamal Sila suma rak la euh, fàttewuñu suñu bàjjen yaay kan Diallo bu RFM borom foyre ah tata yaay kan euh, ñu ngi lay béggee di la ziar bu baax saa yu foyre tàmbalee ñun ñooy njëkk a déglu balaa ñeneen donc ñu ngi lay béggee bu baax tata yaay kan ca fi nga xamante mooy RFM tata Bousso Diallo euh, aussi on l'embrasse très fort yaayu xoyaan moom it ñu ngi koy béggee euh, bu euh, baax anniversaire yi très rapidement ñu jàllale ci quelque ne n'est-ce pas tonton li ci des yi dañu ko jàllale ci générique gu yeewu leen bi donc anniversaire doomu ndey Astu Goudiaby depuis Ziguinchor je te souhaite beaucoup de bonheur réussite totale dans tes projets longue vie santé de la part de Khady Gueye di la wax ni nit gënu la donc Khady Gueye suñu jabar moo fi jaar nee na mu di la ñaanal gudd fan ak wér yaay Mohamed joyeux anniversaire à Binta Samb euh, Binta Samb Gueye c'est de la part de Aïda Ndaw euh, depuis Wakam euh, joyeux anniversaire à bébé Awa c'est de la part de sa maman Bafi nekk fi nga xamante ni mooy Pikine joyeux anniversaire à Véro Mendy depuis Paris c'est de la part de Yacine enjoy baby joyeux anniversaire à Gas depuis Gambie c'est de la part de ta grande sœur Oumi Ndiaye London ak toute sa famille gambienne ak waa Londres joyeux anniversaire à Mbaye Babacar Faye doomu Yandé depuis Yaraax c'est de la part de Fatou Diagne voilà il en reste encore à ñoom ma jigéen Faye euh, ñoom euh, euh, Penda Amina Khadim Sen Dili voilà tout ça dinañu ko jàllale photo yi dans quelques minutes Sidi ñu ngi lay gërëm bu baax merci en tout cas ci ni nga ñëwee tey ndekki ak ñun waxtaan ak ñun ci projet yi yan kàddu ngay tàggatoo wee téléspectateurs yi waa merci di remercier télé bi vraiment di ko doole ci le président directeur général Youssou Ndour sunu mag sunu xarit di remercier yéen di leen remercier vraiment di remercier nag waa Askan Wi famille mm. parce que ñëpp lépp ñoom la quoi waaw ah, je pense que ñoom ñoom nekk sama gannaaw di pousse en spécialement di remercier Makhtar Midi Pile nekk sama frère nekk sama doomu ndey ak képp kuy bëggee Sidi Sam di leen jox rendez-vous rek le huit incha allah yéen a ngi a ngi ci biir yéen yéen ay sama invité moom principal foog ngeen ñëw teew waaw nañ teel a ñëw rek nañuy teel a ñëw nag Pape il faut que ñuy wax nit ñi ñuy teel a génn mm-hmm. waaw di teel parce que soirée nga commencé trois mm-hmm. a a génn a Diop a teel a baal si kaay leen ñu baal kaay leen ngeen teel a ñëw baal waaye. teel a ah, baal si dëgg neexul teel leen a génn. jërëjëf merci en tout cas euh, euh, kontaan nañu 6 euh, décembre donc rendez-vous le 8 fi nga xamante Villa Cristal merci Exidex et à demain incha donc comme invité incha allah. Dior Mbaye Dior Mbaye. allez le mille la la la. allez voilà dama a ma dóor. <laughs> moo la gën a jàll <laughs> bi si lii laa fay laale. <laughs> donc demain incha allah demain incha allah ñu ñëw Dior Mbaye moo nekk suñu invité donc xalaat. ah euh, sinon à demain. incha allah saluté saluté comme Koura Maki di mu koy defee Koura Maki mooy wax lu ko neex pare xoolal ne tonton wane ma. saluté j'adore ça Koura Maki on t'embrasse très fort ak kiss you I love you sama yaay la moom elle est aux États-Unis euh, mais saa yu waxee ba daaneel rek li mu ci teg mooy. saluté saluté damaa bëgg nit bu am feeling. je te jure da koo dal yaay yaay maman merci. <laughs> merci Pape donc de la part de Adji Mujjojo bu ma joojoo donc mi ngi souhaité happy birthday à Astou Mbacké sëñ euh, Astou Mbacké Mortala. ak sunu yaay jooju aussi. ah la anniversaire waaw tey la anniversaire. Ah, donc Adja euh, bu ma joojoo. voilà yéen ay tubaab ngeen ngeen di Adji ma joojoo. Adja bu ma joojoo doomu ma joojoo ñu ngi Adja Touré. ma <laughs> joojoo la ndeyam tudd ñun ko jege woon ñu koy tuddee jooj. waaw kay kon jooj doomu ndeyu Baye Cheikh ma ngay souhaité happy birthday à soxna

gërëm bu baax et à demain merci à toi Pape Cheikh euh, merci à mais en un joyeux anniversaire à Tata Adja Diop yaayu Moustaphe sama frère <laughs> donc Moustaphe Liliane toute la famille euh, te souhaite un goro bu baax nga on t'embrasse très fort merci pour tout cet amour à l'endroit de Liliane merci pour tout yàlla la fi yàlla bàyyi mm. mu un joyeux anniversaire également à Khadim Sène Billy le grand acteur

à moi longue vie santé de bonheur euh, santé de faire plutôt bonheur sama littéraire bi ak sama juriste bi yal na maman ak papa fekkee seen njëriñ votre sœur Ndeye Binta qui vous love donc mooy souhaiter ay jumeaux happy birthday euh, merci beaucoup à Radia Style pour la tenue 77 145 45 13 Ndella pour la coiffure 77 349 27 73 rappelez juste que collecte de dons mi ngi continuer on a atteint notre premier million merci beaucoup Mass MASS démb moo ci jàpp ba ñu egsi ci donc pour jàppale ñu mun ngeen woote 76 198 68 10 wala 78 196 34 34 grand donateur yi maa ngi ñëw liste bi day continue maa ngi ñëw woo leen am na beneen liste bu ma war a limaat voilà donc mu nga continuer euh, d'aider pour qu'on puisse aider 11h10 ñu jeexal euh, yeewu leen bi Henriette Kouma depuis euh, madame Gassama je t'embrasse merci en tout cas ku lim Dioum mais bëri ngeen ci di yónnee ay message j'en profite encore pour remercier Bijou Sy ak Dieynaba Seydou Batal donc deux semaines elles m'ont remplacé je prends la relève pour une semaine encore après je vais refoutre <laughs> <laughs> ay gros mots rek en fait dama am ay gros mots dama am ay gros yoo xamante ni des fois bëgg génn sama sama bouche donc man du ma ko tey ñoom ñooy génne seen bopp na ngeen ma ko baalal ko rendez-vous demain bonne semaine bonne journée sinon je vous retrouve tout de suite euh, sur King FM ma yendu ak yéen ba 14h ci 99.4 et comme dit Koura Maki salute best be free into you that Turn up, turn up, summer day, I'm the boss Kuma juhu kado sama gato no delay Panel, panel, feel polite, cause of the it's a puzzle, baby, taste the puzzle. Yo te lego vereni que yo fete bege. You taste the puzzle, homie, taste the puzzle. You never don't tell it, but love is sweetie. Happy birthday, Wawa Khari.